madina la wàccee ñu gën a bari wax nañ loolu al Bukhari jëlee na ci aïcha radiallahu anha aïcha di wax ne saar wii wàccut lu moy fekk ak yonent bi alayhi salatu wasalaam ñoo ngi nekk amu ci benn aaya ci suratu nisa bu wàcc lu moy man aïcha fekke loola te aïcha xam nga ne ñang ko maye bi ci wae, waaye ñang ko ko joxee ci madinatul munawara kon nag kon madina ñu joxe yonent bi ci madina ci weeru ori ci atum at mu njëkk ma gàddaay ga moo tax Aïcha ne saar wi moom madaniyatu la ndax dara rawut ma ci saar wi buur ne yaa ayyuha naasu ey yéen nit xeetu nit ñëpp la dugal nag ittaqu ragal leen rabbakum seen borom kooku daawa la woote jëme ci yàlla ñëpp rek ñoom la war yàlla mi nga xam ne nag dana joxe lay woo xam ne da xamee ku yàlla mu ne allazi moy ki nga xamne khalaqakum xalaqakum bind len min nafsin ngeen baye ko ci benni bakkan wahidatin badi ben mudi adam di khalaqamu binda min ha bakkan ba zawja jabaram je muy wabasa wa bassa mutasare tasaare min humaa ci ñoom ñaar rijaalan doom yu góor katiran yu bari wa nisaana ki jigen wa taqulla ragal yal alazi yalla mi nga xamne sax bu ngeen di lajante ta sa alona yene ngi lajante bi ci mom looy wax ni da ko nan nang jox ma ngir yalla wala arxama ngeen ragal bokk gi inna laa yàlla kaana musu moo dañ raqiban di aji fugle aleykum ci yéen wala maaw tafsir nee nañ suratu nisaa ba mu jeex kaana yépp lam yazal lay firi musu la dañ la kaana yi suratu nisaa yi yépp nag di firi même boo ko fàttee ba wax ko nekk na it mooy boo nga xam ne loolu lay tekki mu ne léegi mu ngi jëm ci jirim nu ñu war a jëflanteeg moom mu ne waatoo jox leen alyataama jirim ya am wàllum seeni alal wala wala tatabaddalu bu leen soppi alxabisa lu bon la nga xam ne yéen a ko moom bi tayyibi ci lu teey lu baax la jërim bi moomoon ngeen di ko weccee wala taakulu bu leen lekk amwaalum seeni alal alali jërim ya ilaa amwaalikum ngeen boole ko seeni alal yéen ñi ko denc innahu naka lekk gi kaane nekk na xuuban di bakkaar kabiran bu daay ji màgg nag léegi waaye xiftum bu ngeen ragalee àla tuqsitoo du ngeen maandoo fil yataama ci jirim yi fankixu na ngeen takk maa taaba lépp lu teene lakkum ñeen leen mel ne ni saa ci jigéen ña bok nañ génnee benn wax bu jógee ci urwata ibnu zubair urwa nena, na dafa laajoon nday taxam aisha radiyallahu anha ne ko lan moy manam aaya bobule bu ngeen ragalé du ngeen mando ci jéebéer na ngeen tak mune moy ko dañ ko denk ab jirim bu jigéen mu nekk ci kiliftéefam am na alal ba bëggoo teqalikoog moom waaye rafetul ba bëggoo ko takk bu fekkee bëggoo mu raw la ndax alal ja te it bëggoo ko takk yaa ngi koy lor nee na loolu la yàlla di wax naan bu ngeen ragalee du ngeen maando ci kooka na ngeen ka takk mu ne walla boog benn jirim bu nekk ak benn waay waja tak ko lekk alalam ba jeex mu wëcc ko neena na itam ci la duggaale moo yalla ne su ngeen ragalee ne du ngeen mando na ngeen ci tak bu fekke amoon ngeen ben am ngeen droit ci benen moo mu ne fankihu ma tablakum min nisa masna naa ñaar ak ñaar wa sulaas ak ak ñett wa rubaa ak ñeent ak ñeent almazahibul arbaa ñoom ñëpp dañoo dëppoo ci ne nit mën na am ñaari jabar wala ñett wala ñeent waaye ci lay yem ba mazahibul arbaa waxee loolu daawuda zahiri muy mazhabul xaamis moom nee na juróom-ñeenti jabar yoo xam ne ay góor la nit ki mën na ko tëkk mu ne yàlla moo wax ne mas naa ñaar ñaar xanaa ñeent la mu ne boo mas naa ñaar tariqul jamii la mu ne wa sulaas ak ñett ñaar ak ñett lan juróom wa rubaa ak ñeent muy juróom-ñeent daawuda zahiri noonu lay déggee ñaar ak ñett ak ñeent mu ne waaw wi atif la mas naa wa sulaas wa rubaa ñi nga xam ne mel na mu bokk ci ngéerum chia ñoom ñooy def fukk yi ak juróom-ñett mas ñaar ak ñaar muy ñeent wa sulaas ak ñett ak ñett wa rubaa ak ñeent ak ñeent muy fukk ak juróom-ñett ñoom ne nañu noonu lañ ko déggee ndax kalimatu mas naa du tekki ñaar waaye ñaar ñaar lay tekki ahlu sunna nag ñoom ñu ne mas naa luy maanaa ñaar ñaar kër gu nekk na ca ñaar ne fii ñaar fale ñaar wala boog fii ñett fale ñett wala boog fii ñeent fii ñeent mu ne ndax boo doon jitey gerte ñu ne la ñaar ñaar duwul ne lépp ñaar la waaye tooba mu ne ñaar la loolu mooy ñaar ñaar kon nag ñaar ñaar du tekki ñaar nekk fenn mooy fu ne ñaar mën na faa nekk wala ñett wala ñeent loolooy mazhabu ahli sunna lu tekki ne looloo wér mooy bu wax ñëwee ñu firee ko pire mu bari dañuy seet lan la yonent bi def ca loola waaja bàyyi ko ci bani xëylaan tuub si am fukki jabar yonent bi def na def na ko tànn ci ñeent te wàcce ñi ci des bu leneen daganoon lu mooy loola ak wàcc jabar ni mettee kon yonent bi du ko sant koo door a tuub nga xam ne wàcc loo ko jabar sax man na ko tax a bi mu ne ko tànn ci ñeent kon loola rekk ci wér dama dama nag ku bari pexe la ku mën a dàgge sant ku bari lay la waaye lii rekk ci wér nag ku def leneen ñu balaak sa borom ndax fii ni mën na fay def la neex waaye boo dee yàlla yi dina def lu ko neex rek buur nag ne bu fekkee ne fayin xiftum bu ngeen ragalee allah taadiloo ne du ngeen maando fa waaxidatan yem leen ci benn bi mufassiroona yi docteur Chalteut rahmatullahi alayhi nee na yàlla bi muy tudd ay jabar dafa bind nit xam ko xam ne nit ki mënul yem ci kenn ki bu ci yemee officiellement it fokk am yeneen yu muy def moo tax bi muy lim ñaar la tàmbalee te nag mu ne bu fekkoon ne benn moo jaadoo woon mu ne yàlla dafa war a na njëkk wax benn door a dem ñaar waaye dafa tëb rek ne ñaar ndax xam ne ne benn bi moom doo ci mën a yem fokk am noo def boo sàgg ne te ñàkk sàggan yombut moo tax mu tëb rek ne ñaar ndax mënul ñàkk mu ne ñett wala sosaltut ne loolu li ko li koy dëgëral moo di ne sharia dara indiwu ci benn jabar lu mooy bu nit ki feebalee ba ñu ragal ne du maando moo tax mu ne fa in xiftum alla taadilu fa waxida boo feebalee nag yemal ci benn bi euh, mu ne ba tey lan mooy maando ci ay jabar ndax mooy boo xoolee kii xool kale boo waxee kii wax kii lépp a yem sa xol bi ni bëggee kii mu bëggee kale ndax mu ne ndax loolu wala dee mu ne dee walaay du loolu mu ne maandu ci ay jabar mooy boo joxe ay yére ku ne na am boo joxe lekk ku ne na am boo joxe ne ku ne na am nga séddale fanaan ma mu ne fil mabiiti laa fil wati mu ne li ko tekki mooy beneen aaya bi yàlla di wax naan walan tastatiu an taadilu bayna nisaayi walaw xarastum bi yàlla ne mënu leen a maando ci ñi ngeen di denc ci kër ga ak lu ngeen xir-xir loolu mooy li ngeen yaakaar ne mooy mando moom du ngeen ko man mooy ci wàllu xol bi waaye ci wàllu matériel bi nag lañ wax ne na mando li tekki loolu mooy jëfu yonent bi alayhi salaatu wasalaam su amaan matériel da koy séddale mu yem képp mu ne yàlla li ma moom day nii laa koy def li nga moom nag mooy xol yaa xam ni nga koy def kon loolu moo di sunnaam moo tax mu ne wayen xiftum la taadilu fa bu fekkee ne kenn ci nga mën a yem aw ma malakat wala boo nga yokk ca li moom na ko ay maanakum seen i ndeyjoor te loolu moo di ab taara zalika yem ci kenn kii boo munta maando wala nga teg ci taara ndax ab taara moom du rawaandike ay droit ci yoonu sharia kon kooku boo doon maando seen diggante yi dafa yemul ak kee loolu day àddina moo gën a jege day allah taulu ba ngeen jénga tëdde waato jox leen an nisaa jigéen ñi na seeni can neexlatan mu dig may fayintib na su fekkee jigéen ñi dañoo la kum ñee leen an cheyin ci dara minu ci can ga ñu may leen ko nafsan ci bakkan seen bakkan teey ca ñu may la ko fakkuloohu lekk leen ko xani an nu ndokkel leen ca mari an mu nekk lu neex waaye suñ leen ko mayut na ngeen leen ko jox wala tuutu leen jox sufaa way dese xel ya Amwalakum seni alal alati yi nga xamne ne jaalallahu def na yàlla lakum ñeen leen ngeen di taxawé ko buñ la denké kum xelam matut bu ko jox sa alal bu ko baye alali bopam ndax ya taxawé loola farzuquhum na ngeen leen ci jox ñu lek fiiha waksuhum ngeen wadd leen wa qulu ngeen wax lawum ñe qawlan wax maarufan ju ñu xam nga wan ko ne ko sa bop loolu nag ci ñun la gën a bari léegi ñun ñi mënut yore seen bopp te te dofunu moo gën a bari boo demoon tribunal tey ana ñaata góor la seeni njaboot di kalaame ñuy dagg ca la ñuy am mu jëm ci dund ba ndax buñ ko bàyyee ko góor ki mënut a yore kër gi. ñooñu nag alquran a ko wax moo ne bu leen jox ñooñu alal da ngeen leen jox ñu di ca lekk di ca naan waaye buñ ko téyeeti wabtaloo na ngeen nattu al yataama jigéen eh, jirim ya ba xam mag na ñoom déet. hatta isa balaxoo buñ ni nikaa sëy ngeen bàyyi leen ñu sëy fa in aanastum bu ngeen yégee minum ci ñoom rushdan jubam xel fadfa'u jox leen ilayhim ci ñoom amwaalum seen alal boo xamee ne xelam ñëw na li nga ko denceloon kay jox ko wala taakuluha bu leen lekkaale li jirim israfan ngir yàq wa bidaaran ak gaawtu an yakburu bañ balaa ñoo màgg mu jeex wa man kaana ku nekk na xaneen di aji oomal bu mu ko laal fal yastaxfif na fegu wa man kaana ku nekk na faqiran di aji ñàkk te war a dundal jirim ba na jël ca alali jirim ba nag di ca lekk di ko ca leyal fal yaakul na ca lekk rek bil maarufi ci lu ñu xam fa ida dafaatum bu ngeen jiñee ileem ci ñoom am wàllum seen alal fashido na ngeen sàkk seede alayhim wa kafa doy na bilaay ci la xasiban di aji xisaab leen bi mu ñëw ci tashrii xaqi jigéen ak xaqi jirim awsa ibnu saamit al ansaari dafa faatu mu bàyyi jabaram ji tudda ummu kaxlata mu bàyyi ay doom yu jigéen donc doomi bay taxam ya ku ñaan sawit ak irfata nga xam ne ñoo góor gi dee seen baay ak góor gi dee ñoo bokk ak ñi bay tax ya te loolu moo doon aadab arab ñu ñëw ne jigéen du donn comme kii moog suñ baay bokk ak ndee ak te faat na fi doom ju doom ju góor alal ji noo jël léegi nag mu kaalata dem ci yeneen tawat dal di ne ah awsa day ibnu saamit faatu na man may jabaram am na doom yu jigéen te ne nañ day jigéen du jël ci alal ji dara te ñii nag jamono ji tey bu say doom yu jigéen amut alal kenn du leen takk kon léegi nu may def alquran ne wali rijaali ñeel na ay góor day nasibun cër lima taraka ci la bàyyi na ko alwalidaani ñaari way jur wal aqrabuun ak jege ñaale ni ki ay ki mbokk wante wali nisaay ñeel na jigéen it nasibun ab cër de mimma taraka ci la bàyyi na ko alwalidaani ñaari way jur wala aqrabuun ak jege ñaale mimma qalla ci lu néew na minu ci alal jaaw kasar wala mu bari nasiban cër la mafruudan bu ñu dogal kon doomi jigéen yi nañ jël ñaari sulus ndaw si na jël ab sumun bu alal ji nekkee juróom-ñetti xaaj ndaw si jël ab sumun ñaari doomi jigéen ñi buñ jëlee sulu saani benn ba cay des nañ ko yónni am nawul am yi léegi nag léeg-léeg miraas dana am am ku ñëw jage néew bi ci bokk waaye sariya joxu ko ci tus kooku noo koy def nit ku dee am na doom ju góor ab jigéenam a ngi taxaw bu néew doole fekki mirage ma alal ju bari te bo bok ki de bok ndek bàyyi te sharia jox ko dara noo def sharia ne na am loo génnee balaa ngaa séddale yow serigne ba mis dara mirage soy la nga am yow serigne ba sa payug liggéey na nga dey sok ñom ci ñu génnee yit lu ñuy jox ñu jégué ñu jégué ñaale ñoo ñi te sharia joxul leen dara ba ngeen jubo ca ngeen génne lool motax sharia ne wa ida xadara bu fekkee fekkee alqismatu bi séddale ulul qurba borom yi jege ñaale wal jetaame ak jirim wal masakin ak miskin ya fa dikk ak ndongo ya fa teew farzuquhum na ngeen leen jox minhu ci alal ja wa quloo ngeen wax lawum ñe leen qawlan wax maarufan ci ñu xam ñu naa yow kat lii dañ leen ko mosal ndax yéen sharia joxul leen dara wal yaxsha na ragal la jina ña nga xam ne law tarakoo buñ bayoon min xalfim seen gannaaw duriyatan ay doom diafan yu doyadi xaafoo ñu ragal alim ci ñoom wal yattaqullaa nañu ragal yàlla wal yaqulu nañu wax qawlan wax sadidan ji jub yow sëriñ bay miraas bu ko lekk bàyyi jirim ya yow ma koy séddalee bu ko lekk bàyyi gune ya na nga bàyyi xel ne bu doon yaa dee tey bàyyi si gune yu ndaw am ku def noon ndax a neex inna lladiina naka ñi nga xam ne yaakuluuna ñooy lekk am waalal yettaama alali jirim ya zulman ci tooñ innamaa yaakuluun naka danañu lekk fi butunim seen biir ya naaran safara wa sa yaslawna xalse nañu jaaru sairan safara bu tudd sair bunti safara yi juróom-ñaar la sair ci la bokk jahannama sair xatamatu jahim laza saqara jahim xawiya sair kon benn la ci na lool waaye génnagul miraas ma ngi ci ayatul mawaris aaya indi miraas li ko tax a mufassiroon yi dañu wax ne saadu ibnu rabi ba mu faatoo kenn ci leen saar la jabaram dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yow bi mi yàlla yoon saadu ibnu rabi day xareb uxud la demoon ànd ak yow fala des ñaari gune jigéen yi nag moo leen jur seen baay tax nag seen rakki baay nag taxaw na nee gune yi seen bay deegul ndax moy seen bay day jël lepp rek ñom ñu tok te def lay wóor ne gune yi buñ amut alal de duñu sey legi nak lan la yàllay àtte ci ñooñu alquran ne yusikumullahu dana denk len yalla fi awladikum ci seeni dom, li dakari ñeel na ku goor ki mislu xaddil unsayni kem cëri ñaari jigéen fayin kunna buñ nekkee ñoom ñooy donn nisaan di jigéen waaye fawqa ithnatayni ëpp nañ ñaar ni ki ñett la falawu na ñeel na leen sulusa ma taraka ñaari sulusi la bàyyi na ko aji faatu ja wa in bu nekkee ku jigéen kiñ si bàyyi waahidatan di kenn rek fa lahaa ñeel na ko nisfu genn wàll ak alal ga wali abawayhi ñeel na ñaari way juri ki faatu waaye li kulli waahidin dama ne képp kenn minhuma ñeel na ko asudusub juróom-benneel ndey juróom-benneel lay am bàyyit juróom-benneel waxut ñu bokk ko waaye li kulli waaxidin huma sudusu mi maa taraka ci la bàyyi na in kaana ndem nekk nag lawoo ñeel ki faatu nag wala dun dom, ndax bu ndey ak bàyyi di jël ay sudus ak muy donnee nii day fekk waa ji tey euh, ku jigéen rek la bàyyi noonu waaye bu waa ji bàyyee nag wala dun doom ju góor kon noonu lañ koy donnalee ñu jël sudus rek dem toog waaye bu doon doom ji jigéen tey bàyyi ji moom day jël la ca des moo tax mu ne fayin lam yàkkun bu nekkul la woo ki dee nag wala dun doom wari soxoo doon na ko abu waawu ñaari baayam rek kon kon day bàyyi ja moom asib la day xaar li des waaye feli ummi yi ñeel na yaay ja kon asulu su ba de fa kaana bu nekkee la wëñeel ki dee ixwatun ay mbokk am na fi ay mbokk te fekk bay newu fi waaye bu fi amee mbokk te nekk fi bàyyi bu fi nekkee am mbokk waaye bu fekkee bay nekku fi ndeya fi nekk ki bokk fali ummihi kon ñeel na yaay ji sudu suuf ab juróom benn min baadi wasiyatin gannaaw bu ñu génnee dénkaane ya yoosu boobu dana dénkaane bi yaay ci moom aw day wala gannaaw bu ñu fayee bor li ko waral mooy abaakum seen baay yi leen jur waa am naa naawakum ak seen doom yi ngeen jur laata droona da ngeen mënul xam ayyuhum kan ci ñoom aqrabu moo la gën a jege lakum nafaan ci njëriñ faridatan lii luñ dogal la mina laa yu bàyyee ko ci yàlla inna laa yàlla kaana mu sumoo dañu aliman di aji xam xakiman di aji xara la amul kenn ku mën a wax ne sama baay ma gën a jege sama doom wala sama dooma a gën a jege sama baay yàlla ne loolu moom xamu leen ko moom ndax ni la kii def nga def kii ñu yem képp rek buur ne wala kum ñeel na leen yéen ñu góor ñi nag ni su ma tarak genn la bàyyi na ko aswaajukum seeni jabar in lam yakun bu nekkul la woon na ñeel jigéen ña wala dun doom jabar bu dee te amul benn doom juróo kook moom juróo koog keneen góor ki na jël genn wàll fayin kaana bu nekkee la wun na ñeel jabar ya wala dun doom te fii doom maanaahu ku juddu rek du góor wala fi du tekki ku góor falakum kon ñeel na leen yéen jëkkër ya arrubu am ñeenteel ndax doom am na mi ma tarak na ci la bàyyi na ku jigéen ña min baadi wasiyatin ganaaw dénkaane boo xam ne yuusi na jigéen ña dénkaane nañ bi ci aw daynin wala bu buñ fayee seeni bor wala hun ñeel na seen jabar bu góor faatoo arrubu am ñeenteel bi ma taraktum ci si bayi. li ngeen fi bayyi in lam yakun bu fekkee nekkut lakum ñeleen waladun wala dun doom kay waaye fa in kaana bu nekkee lakum ñeel leen wala dun doom góor la wala jigéen falahunna ñeel na jabar ya donte bari nañ asumunu ab juróom ñetteel waaye sharia nag munul séddale sumun lo ñeent bi ma taratum ci li ngeen bayyi in lam yakun bu nekkut lakum ñeleen waladun wala dun doom fa in kaana bu nekkee lakum ñee leen wala dun doom fa lahunna ñeel na jigéen ñaa sumunu ab juróom-ñetti li ma taraktum min baadi wasiyatin yuusuna bihaa aw daynin wa in kaana bu nekkee rajulun ku góor a dee yóoru su dee si ko doon kalaala tan muy kalaala kalaala mooy ku jurul kenn ñi la jur kenn newu fi koo koy kalaala kon ñëpp ñi koy doon na ay jege ñaale lañ andi na kalaala ci bopp saar wa dana indiwaat kalaala ci mujj ak saar wa waaye ñaari masala yi dañoo bokkul fenn fi ay doomi ndey ak baay ñooy donn fenn fi ay doomi ndey rek la moo tax ñaari masala yi moo indi ko te bokkuñ li ñuy wax fii nag mu ne nga seet ko in kaana bu nekkee rajulun waay moo dee yorusu de su ko dona te kalaa la mu nekk kalaa la ay imraatun wala jigéen moo dee ñu di ko dona ci kalaa la mooy jurut ñi ko juróon newuñ fi wala woote ñeel na ko axun mbokk aw waxtun wala mbokk mu jigéen kon ay mbokk rek koy dona ci jegi ñaale kon ñeel na képp kenn ci ñoom asudusu ab juróom benneel loola moom ay doomi ndey lañ moo tax wayin kaanoo buñ nekk ak tara kon ñooy bokk sulus ba te it buñ koy séddoo ñooy yem góor du fa ëppale jigéen ay doomi ndey bu ñuy donn ñooy yem mu ne loolu min baa di wasiyatin gannaaw dénkaane yow saabu def ne dénkaane biya aw daynin wala bor xayra mudaarin waxuma nag bor wala waxuma nag dénkaane buy lor wasiyata na nekk dénkaane min laa bàyyi ko ci yàlla walaahu yàlla alimun aji xam la xalimun aji lewet la di waaj a dee rek ne sama alal nañ ko sarax diw rek ba lépp jeex loolu nag bu fekkee dénkaane buy lor la sharia da koy teppi buur ne tilka loolu nag xududullaahi mooy daylu yàlla de wa man yutii ku topp na laa yàlla war rasuluk yunintaam yudxilhu dana dugal ko yàlla jannaatin aljanna yoo xam tajri dina daw min taxtiha ci suufam al anhaaru yolu yent xaalidi nañu di way beelu fiha ci aljanna wa zalika beelu ci aljanna nag alfawzu moo di texe alazimu gudaay ji mag wa man yaasi ku moy na laa yàlla wa rasulahu ak am wa yataadda mu jéggi mu jéggi xuduudahu dayalu yàlla yi kooka bu dajeg yàlla yudxilhu dana dugal ko naaran safara woo xam ne su ca duggee xaalidan day sax fiyaa foofale du ca génnati wala wa ñeel ne mu muhiinun aji doyadal la ko mu ñëw nag ci zina mu di fahishatul mamquuta muy ñaawteef yi ñu gën a bañ ulamaw tafsir ñu gën a bari ci ñoom ñi gëm naa naasix man suux dañoo wax ne aaya ji folli nañ ko nee li ko folli mooy xadis ba nga xam ne moo wax ne ku njaaloo te sangewu ñu rey ko ku njaaloo te sangewut ñu caw ko ci soratu noor ñu ne ndax aaya jooju dañoo folli mbind ma bàyyi jàng ga ba dañoo folli jàng ga bàyyi bind bàyyi ko te bàyyi atte ba nee nañ lu fi nekkoon ci soratu noor mooy acheikhu wa cheikhatu in zanna yaaru jimal battata azaniyatu wa zani fajlidu kulla waahidin minhuma miata jalda léegi nag folli nañu acheikhu wa cheikhatu atte baa ngi fi des xadis yi ñoo ko leeral ñaar lañ ma sa rey ci zina ci jamono yonente bi alayhi salatu wasalaam kenn ku góor ak kenn ku jigéen kenn ki maïsa la kenn ki xamidi la ñoom loolu la ñu wax waaye alxajazi ak ñu bari ñu ànd ak moom dañoo wax ne alquran duñ ci fali dara dañ dul xam rek li koy tax a ay ji nu nar a jàng fii ay mbugalam musaxaqa mooy jigéen ak jigéen loolu arab di wax mu saxaqa nee na ñooñu la ñuy mbugal di leen te ci néeg ba ñuy dee mu ne aaya ba ca topp walla wala zaniyaati yaaniha ñu lor leen te mooy ñu rey leen bu ñu tuubee te jàpp guñ leen ñu baleen mu ne loolu mooy liwaat diggante góor ak góor mu ne wala eh, waaye nag azaniyatu wa zani kooku mooy jigéen ak góor te sange ñu caw leen ba ca des nag xadis yi ñoo ko confirmé mooy ñu rey leen xajaas yi ne na wuñ ci dara mu ne moo tax mu ne wallaati jigéen ña nga xam ne yaati na danañu indi alfahisha taw ñaaw téef min ni nisaayikum ci seen jigéen ñi yéen julit ñi fastashidoo na ngeen sàkk ay seede alayhi na waral leen arbaatan ñeent min kum ci yéen góor ñi fa in shahidoo bu ñu seede rek fam sikoona tëj leen leen fil buyuti ciy néeg duñ lekkati xataa yatawaffahuna al mawt ba dee dikkal leen aw yajalullahu wala def yàlla lawun ñela sabilan yoon wala ñu téye leen mbugal leen ba seen seen rafet ñu baleen wala zani ñaari góor ñi nga xam ne nag yaati yaani ha andi nañ ñaawteef yooyu minkum ci yéen góor ñi yéen julit ñi fa azuhuma lor leen leen ba ñu dee rek ndax am nag fa in taaba buñ tuubee bala ngeen leen ngeen leen a jàpp wa aslaha ñu yéwénal nag faaridu na ngeen dëddu anhuma walis leen ndax ina laa yàlla kat moom bul bul yëg ne bul fàtte ne kaana musul dañ tawaaban di nanguwaa koon tuub raximan di ak yërëm kii nangam la woon waaye nekkatu ko tuub moomu nag nee na nee na tuub moomu nag bunt la bu tëjagut ana kañ lay tëj bés bu jant bi fenkee ci sow bu kerogee ku tuubit jeex na gaa yi dañuy dal laf seeni téere rek dal di yéeg tuub dootuñ ko nangu doo defa ci dara lu nekk lenn mu ne loola la mu ne ana kañ la kañ la ñu tëj tuub itam bu nit ki toogee ba sukkuraat fekk tuubuloon ba sukkuraat ñëw mu jano xaybu ah boobu du baax nag ana gan tuub lañ du nangu ki def ki nekk yéefér ba dee ci kéefér kooku ñëpp boo dajoon jullit yëpp ñu fi ko ñaanal ko julle ko it dara ci kéefér la dee xat kafara kooku moom la yuxfaru moo tax buur ne innama tawbatu naka tuub ala lazina war na ñi nga xam ne alallaahi waral yàlla mu di ko nangu li lazina ñeel na ñi nga xam ne yaamaluuna ñu ngi jëf soo lu ñaaw bi jahalatin fekk ak réere la woon gannaaw ga su ma yett boona ñu tub min qaribin lu jege lu jege mooy balaa ñoo dee fa ulaayika ñooñu nag yetto bu laaw dana nangu yàlla tuba alim ci ñoom ndax wa kaana musul dañ da laaw yàlla aliman di aji xam xakiman di aji xara la wante wa laysati tawbatu nekkul tuub nag li lésine di ñeel ñi nga xam ne yaamaluuna ñi ngay jëf sayiaati aw njombe xataa isa xadara toog nag ba teew almawtu dee ahadukum kenn ci yéen xaala mu ne inni man tubtu tub na al aana léegi bi may dee déedéet du baaxati ndax itam nit ki bu diggam jeexee rek am na ay malaaka yoo xam ne muy raqib ak atit ñooy ñooy rek sëjlu bi raqib moo commandé atit bu ñu xoolee ba xam ne kii dig bi jeex na rek dañuy daal di tëj téere ba rek dem booy tubati duñu am fu ñu ko bindee yàqu na moo tax mu ne loolu boobu du baax wala lazina du caageen ñi nga xam ne yamuutu na danañ dee wahum tuñum kuffaaroon ci kéefér gi lañ dee kooku moom dara mënu ci dara moo tax buñ ne nañu góorgóorlu defal ko fi daaw ah daaw ak ñaan la mën naa yokk de waaye du nekk fondement bu baaxut du def dara bu fekkee fondement bi baaxut addina si yépp bu ci yeneen yi bokkoon sax di ñaan du baax fondement bi baxut mom ma ngay bax ci fondement bi bax ñu ñaan xeyna mu yok ci motax mu ne ladina yamutuna wahum kuffar koku tub amu ci ulaayika ñoom ñu koy ñom jexal nañ atna xare nañ wajal nañ lawum azabun bugal mo xamni aliman aji metti la te yalla wax nako ba pare te du ci delu gannaaw nan la ñu yore jigen ñi ci ci kër gi arab amon nañ benn aada bi lislaam ñëwagut waa ci bàyyam dee day tànn ci jabari bàyyi ñu ko neex mu donn leen wala boog bu fekkee yaa mag ci famille bi ñi leen ñi la neex ci ji nga doon leen ci nga wacc leen ñu taxawaalu ji rek sama borom ne yaa yoon li dina amoon yéen gaa Qur'an laa yaxillu du dagan mukk lakum ñeel leen antarisoo ngeen done ni saa jigéen ña karaan ci forcé tey nak may magum kër gi soxna si ndaw la xëy na rafet na ma don nako wala munuma ko don na rek nga ne nako galankor ba du ki ah may magam may chef fami bi kat do fi kenn la fi jelat sama borom ne wala taxduluhu na bu len len galankor li tazabu ndax bañ ñu yóbbu rek bi ba'd ma ataytumuhun len na ci li ngeen len jox te fay gar do ma aadama jox xamni da fay denc ku da fay denc ku jigen def ci alal ju bari mënu leen a juboo mënoo wacc ndaw si ndax kon day yóbbu alal ji te yore bi du baax yàlla ne déedéet bu leen def loolu pour bañ mu dem ak li ngeen ko joxoon illaan yaatiina lu may nga xam ne jigéen ñi dañoo indi bi faaxishatin ci aw ñaaw teef mu bay bayyanatin wu ñu biral ñëpp xam ne kii dafay defu ñaaw téef wa ashiruhunna àndale nag jigéen ñi bil maarufi ci njëkk léegi nag fayin na bu ngeen leen bañee te loolu day am bëgg nga ko ba yàgg mu mel noo xam ne léegi bañ nga ko yàlla ne jaamul yàlla faasa mën na an takrahu ngeen bañ cheyan dara waaye jàlla laaw def yàlla fii ci li ngeen bañ xayran yu katirin wu bari mu muñal rek waaye in aratum su ngeen bëggoon nag istibdaala zawjin wuutal jabar makkaana zawjin fa palaasu jabar loolu nag borom barke yi ñoo koy def xam naa ne ñaaw na donte alquran wax na ne buñ ko bëggoon a def nu ñuy def yere jigen ba yag nga ne dafa màggat te mono wessu ñent nga daldi ko ber gaay na ñu yebbu ko barzak daldi wutat ku ndaw tek fa alquran su ngeen bëgge lolu wa atitum ngeen jox idahu nak ken ci ñen qintaran alal ju ju ngeen ko joxon ah fala takhuzu bu len jël nak minu ci alal ja sheen yow yang koy wëcc alal ji bari nga bëgg ko kereel problème ndax mu génn ci nak alal ji fi alquran ne ata fàtte ataaxuzuunahu kooku istifam bobu taw bi xii la du laajte kese day yeddaale ataaxuduunahu mo ndax da ngeen di nangu nak alal jak can ga buhtanan ci ndar ngeen ko nangu wa isman ak bakar mubinan binan jibir ben yarango ngop jël gi ngeen ko jël aw nar la bakkaar la alquran dal di yem nak sak ñak nité mune eskay way setal ndaw si li mu daj ci yow seetal ndaw sii fi nga toll woon ci moom seetal la nga ko xamal la nga gis ca moom nga xam ne ay waajuram sax rus na mu gis ko ca moom alquran ne wa kayfa taaxuzunahu naka ngeen bi mën a jëlee alal ja waqad afdaa te yeggoon na baadukum kenn ci yéen ila baadin ci kenn ka waa xasana te ñu jàpp minkum ci yéen misaaqan kóolare xalisan bu daay ji dëgër boo ko wëccee bàyyi ko mu dem ak loola nag bay na loola waye gennagul kër gi ma ngi ci ana yan jigen ñoy ñi nga xamne sharia neena na kenn du len denc ñan jigen ñoy ñi nga xamne sharia neena na daganut ñi di leen di denc faw ñoña amna ci ño xamne ay lañu modi ndey ak mam ak mam imam lum mu sori sori koku ak cosaan tax mu haram amna ci ño xamne ay bankas lañ mooy doom ju jigéen ak doomi doom ju jigéen doom ju jigéen ji doom ju góor jur lu sori sori ñoo ñooñu ay banqaas lañ am na ca ñoo xam ne ay jege ñaale lañu moo di sab jigéen ndey ak baay ngeen bokk ndey rek wala baay rek wala bokk ñoo xam ne ay ay ay ay ndey tax lañ moo di mbokkum ndey ki bokk ak ndey ndey baay wala ndey rek wala baay rek wala bàjjan mooy ku bokk ak baay ndey baay wala ndey rek wala wala baay rek ñii kenn du leen denc donte bàjjanu bàyyi la kenn du ko denc wala ndey taxu yaay itam muy sa tantu ndey kenn du ko denc ndax moom itam mooy maam rek naka noona sa mbokk moomale ki nga bokkal ndey ak wala ndey rek wala bàyyi rek muy góor doomam it doo ko denc ki nga bokkal ndey ak bàyyi wala ndey rek wala bàyyi rek muy jigéen doomam jarbaat boobu doo ko denc moom am na ñeneen ñoo xam ne xaraam gi xaraam nga denc leen ci wàllu nampaale rek la ci askan mooy da ngeen a bokk namp bu fekkee ne gune dafa namp ci jenn jigéen ndaw sa ndeyam la jëkkëri ndaw sa kon dana xaraam gune googale ndax baayam la baayum nampaalem la doomi ndaw soosa dana xaraam gune googale ndax mbokkum nampaalem la loolu nampaale koy indi am na geneen haram go xamne ne ak goro moo koy indi ci diggante ay nit niki jabar niki ki jabar naka noonu jabari dom yooyu itam sababu musahara moo tax du dagan nga di ko dégg ci loolu nag bu fekkee ne tey nit ki dafa yore jabar jabar ja am doom ji jigéen doom jooju doomu jiitle boobu mënu ko denc naka noonu yaayi jabaram jooju naka noonu tanti jabaram jooju bokk ak jabar ji ndey ak baay du ko mën a denc naka noonu jabari doom xaram na baay ja ba maam ja bu ñooñu jeexee nag am na li ko fukkeel mooy koo xam ne li tax mu xaraam ba mënoo koo denc loolu dafa gaar lu gaar nag bu deñee rek dagan loola mooy lan ñaari jigéen ñu bokk ndeeg bàyyi wala ndey rek wala bàyyi rek doo leen boole ci benn bu mag sëy waaye boo ca wëccee kenn mën caa rek ca des wala boo nga denc jigéen bàjjanam bi bokk ak ndeeg ndeeg baayam ndeeg wala ndey rek wala bàyyi rek bàjjan boobu doo ko mën a denc boo ko wëccee nag mën a jël bàjjan ba wala boog nga denc jigéen tantaam ji bokk ak ndeyam de bàyyi wala ndey rek wala bàyyi rek doo ko mën a denc boo ko wëccee nag mën a jël kee ndax kooku li li tax mu xaraam seen diggante lu gaar la lu gaar la bu dañee kon mu dañ ñooñu la alquran di nett li ne mu teg ci nag ne lu moy li wéyon li wéyon mooy lañ nekkoon ca jamonoy aadama ak ci sharia bani israil ak la arab daan def ci denc sa jabari baay ak yooyu mu am nag ay aada yoo xam ne réew mu nekk seen aada dana ko rafetal seen aada dana ko ñaawal bu ko rafetalee ñu def ko bu ko ñaawalee duñ ko def loola moom fekk xaraamut sharia moom yoonam nekku ca mooy boo demee ci biir bawal wala kajoor nit najaayam day dee ñu tagg ko ne jarbaat bu baax la may ko jabari najaayam loolu kajoor bawal rek ku ñeme saalum kenn du ko fa def jolof kenn du ko laal loolu ku ko def musiba la foofu loolu nag parce que aada la aada koy ñaawal ak rafetal waaye sharia bañu ko alquran ne wala tankixu bu leen denc maanaka ala dencoon na ko abaawakum seen i baay mi ne saay ci jigéen donte seen baay wëcc na ko donte seen baay dee na illa ma qad salafa lu mooy li wéyoon innahu naka denc jabari baay nag kaana musul denc faaxishatan diw ñaaw téef wa maqtan dim sànj wa saa bon na sabilan wowu yoon xorimat xaraamaleef na mu ci yéen umaatukum seen ndey yi leen jur wa banaatukum ak seen doom yi ngeen jur waa xawaatukum ak seeni mbokk soo demee ca euh, tafsirul manaar cheikh mouhamad abdou ba mu ne banaatukum daf ne kan mooy seen doom mu ne seen doom mooy ki nga xam ne yéen a ko jur fekk dangeen a takk ndey ja waye bu ngeen ko juré te fekk tëkku leen ndey ja sharia du nangu ne seen doom la bo tassé mom ëllëgit bu la nexé denc ko ndax jotté wu len dara sharia nangu wut loola mu ne loolu mooy ba mana banatukum wa akhawatukum ak seeni mbokk mbokk mu jigen moo di jigéen wa amatukum ak seeni seeni bay tax moy ndey tax moy bàjjen bi dal wa khalatukum ak ndey tax moy mbokum ndey wa banaatul axi ak dom ju jigéen ju sa mbokk mu góor jur wa banaatul uxti ak jarbaat wa xam ne sa jigéen ko jur wa umaatukum ak seeni yaay yi nga xam ne sax allaati yi nga xam ne juruñ leen waaye ardaanakum nampal nañ leen ci waxtu ngeen feragul wa khawatukum ak seeni mbokk itam nag min ridaati ki nga bokk nampa ci jenn ci wenn waxtu wa umaatu nisaayikum ak seen yaayu jabar wa ak ki ngeen yar allati ki nga xam ne fi ujurikum ma ngi seenam lool la te ngeen yore ndeyam min nisaayikum seeni jabar ku ne gu jigéen gi ñëw ci kër gi ndeyam indi ko nga yore ndeyam kooku doo ko denc waaye allaati ndey ya nga xam ne daxaltum xaraf ngeen bihin nag ñoom bu fekkee ndey ji kay jote ngeen dara léegi nit ki dañ ko mayoon jigéen jigéen jaa ngi am doom ab jànq la ah, mu sant jaw lool demaat fa gis doom ji rek ne moom daal kiyatut ci doom ji lay nekk dal di wëccëkale te jotul joteeg ndey ji dara sharia nee na ñaaw na waaye yoonam nekku ci ñaaw na ci aada sharia moom nee na dagan na moo tax mu ne fay lam takkunu su ngeen nekkul kay daxaltum di xaraf bi nag ndey ya safaan ba nag du sotti bu la xasoon may doom ji bu ngeen jotewul dara ndey ji xaram na wala junadit bakar alaykum di war len wa halailu amnaikum ak jigen ñi nga xamne dagan nañ sen dom yu ya moy sa jabari dom ju góor allazina dom yi nga xamne la wax min baye ko nañ ci seen ndig waxuma kuñ la dom lek ko ak alu demé ni ki nonu dama né min aslabikum sa dom ju góor ju ko ci seen ndig jabaram haram na Haram na yit wa antajma'u ngeen boole baynal uxtayni ñaari mbokku ila ma qad xanaa lu may lëwéyoon ci jaahiliya ñu nit suñ jaahiliya fii bari na suñ buur yi daan nañ ko def wala ila ma qad salafa moom nga xam ne wéyoon na ah bu fekkee ñooñu defoon nañ ko ci jaahiliya te bi diine ñëwee ñu dugg ca tuub nañ rafetal seen ak tuub loolu nun ko baax yàlla ndax ina laa yàlla moom kaana mosul dañ xafooran di aji bale raximan di aji yërëm صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا مولانا ورازقنا من الشاهدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا بحق القرآن الكريم اللهم اغفر لمذنبينا اللهم اعف عنا اللهم ارزقنا اللهم طول أعمارنا وزد في أرزاقنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم نعوذ بك من الفوضى ومن شرور أنفسنا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 wa radiya allahu an ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi la hawla wala mu ngi waxoon démb fukki jigéen yoo xam ne mu ne su a takk ci sharia yoon da koy bañ ñooña nag ca ñoom lay atif ne wal muxsanaatu ak way sangewu yamina nisaa ci ay jigéen ak yépp jigéen joo xam ne mu ngi nekk ci buumuk séyug jaambur kooku bokk na ci ñi ñu dul takk ñooñu yëpp duñ leen takk illaa ma malakat lu mooy la moom na ko aymaanukum seeni ndeyjoor mu ne su fekkee ne tey dafa wax xeeti jigéen ñi ne sababi goro moo tax mu xaraam ñii lu gaar la ni ki mbokkam jabar ak yi demee ni ki noonu léegi mu atif ci képp ku nekk ci bu seeg jambur mu ne lu moy nak ko xamne nekkon na ci buumug seeg jambur waye dafa nekkon yéefar ñu xex seen réew ci jihar ju jaar ci yoon japp ku jigen koka koka bu nekkon ci bu muk jamburit bok na ci mamalakat malakat aymaanukum li tere bi yalla la ci faratal ci yeen mu ne wa uxilla daganaleef na lakkum ñeen leen maa waraa daalikum lépp lu nekk ci gannaaw loolu an tabtaxu ngeen sàkku bi am waalikum ci seeni alal muxsiniina ngeen nekk di way sangewu ca takk ga xayra mustaafixiin te nekku leen di way caaxaan mu ne denc googu ngeen di denc nag njëriñ la yépp mooy ngeen fegoo ci denc gi ñàkk defeti ay njubadi fa ma stamtaatum lépp lu ngeen bànneexoo bii ci xeetu takk ak sëy min hun na ci jigéen ñi faatoohun na jox leen leen ujoorahun na seeni yool te mooy can ga faridatan mu di lu ñu dogal wala junaa adit bakkaar aleykum war leen fi ma taradaytum ci lépp loo xam ne gërëmante ngeen ko bii ci can min baadil faridati wala bii ci joxe gi min baadil faridati gannaaw jurug farata gi su ngeen gërëmante ci lu tuuti baax na bu ngeen gërëmante jibo ci lu bari it baax na Inilah nak yalla kana kaana mu dañu aliman di aji xam xakiman di aji xarala léegi nak koo amul can ngir tak, jigen ñi nga xam ne moo ñoom ñoo daraja dara desewu ko lu moy can nak kuñ mom la mëna wut mo lol la alquran di wax naan wa man lam yastati ku atanul ku manul minkum ci yeen amul most tawlan can an yan ki ha wala tawlan kàttan loo xam ne an yan ki mu dencee ca almuhsanaati way sangewu ya almuminaat ñe di way gëm yàlla ñooña fa mi mamalakat kon na denc ci la la xam ne moom na ko ay maanukum seeni ndeyjoor min fatayaatikum ca seen xale yu jigéen yi kon mel na ni dafay bëgg léegi ay xeeti jigéen yoo xam ne kenn mënu leen a denc mu wax ko ci darsu bi nga xam ne moo weesu mu ne gannaaw ñooñu ki nga xam ne nag moom mënula denc ñeñ ko denceloo ndax li waral mënut loola moo dina dafa amul can kooka na dem ci ñi nga xam ne ñoo gën a wàcc daraja ci seen aada te mooy ñuy waxoon ne dañ leen a moom kon mu mel nii <clears throat> gor si takk nag ki nekk gor moomeef gi nag moom nga kook seeni ñiñ tollool koo xam ne nag ragal na ne du mën a téye boppam te amul ca nag gor ya ndax ñoo gën a cher na dem ci ñi nga xam ne dañ wax ne dañ leen a moom ci ay julit yi yépp ma ngi koy wax ci jamono bi nga xam ne loolu noonu la amee woon waaye nekkul loo xam ne jamono jii nga xam ne loolu amatul loolu amatul benn sens ndax fii kuñ fi waxoon ne sax jaam la ci aada tey soo ko bëggee <clears throat> da ko danga nga ca def li ñuy def ci ñenn ña loolu moo tax ñi mu ngi koy wax ci jamono bi nga xam ne jaam dafa am da ngay waxaale ñu ne fukki junne nga fay bëgg na la bëggut la nga yóbbu waaye jamono jii bu ñu la waxee ni kii jaam la ñu wax ne kii ko moom mu laaj la juróomi junni it ngay dem ngoro te bu gën a bëggul du ñëw moo tax nga xam ne jaam amul ndax bu amoon boo joxee du sañ a bañ waaye léegi boo joxee bu la gën a bëggul day lànk day lànk te kenn du ko mën a forcer mooy kenn moomu ko lay tekki wallaahu yàlla aalamu moo xam bi imaanikum seen gëm yàlla baadukum leen ci yéen min baadin ci ñenn ñi la ñuy jógee fankiixuna na ngeen takk ñooñu bi izni alihinna ci ndigalal seen ñooñ waatuhunna jox leen leen ujuurahunna seeni can mooy yool ba na nekk ci njëkk sëy nekkul buntëb muusante waaye buntëb gorewante la kon nag na nekk maaruuf muhsanaatin jigéen ñi itam waxtu wi ñu leen takkee nañ nekk di way sangewoo ca takk ga xayra musaafihaatin waaye denc gañ leen denc bu mu nekk sabab mu jëm ci ag yàqute wala mutaxidaati axdaanin du caagee nit takk giñ leen takk ubbil leen ab bunt pour ñuy jàpp ax daanin ay xarit yu góor jigéen du am xarit bu góor fa ida uxsin na bu fekkee ne sangewu nañ nag ca sëy boobale léegi ñu seet fa in aatay na bu ñu indee bi faaxishatin ci lu ñaaw mu di aw ñaaw téef fa alayhinna war na leen fu ma ala almuxsanaati genn wàll ak li war gor su jigéen su sangewu min al adaabi ci mbugal dalika loolu nag boo gisee ñu naan demal takkik moomeef ndax moo gën a yomb ak can mu ne loolu nag li man waaye mooy ki ragaloon na alaanata njaaloo minkum ci yéen waaye ki mën a téye boppam ragalu ko bu mu ca dugg ndax dugg gi <clears throat> li muy indi mooy bu ëllëgee doom ji ci juddoo fu mu taxaw ñu naan ko yow nangam dong nga su ko defee gune googu yow baay ji yaa ko teg xas woowale ak coono boobale moo tax mu ne loolu nag li man xashiya laanata rek minkum wa an tasbiru su ngeen muñoon ba mën a am canag ñi nga xamne su ngeen leen takke wax du ci am gannaaw ga kon khairun mo gën lakum ñeel leen wallahu yalla ghafurun aji baal la mu leen rahimun <clears throat> aji yëram la mu leen llahu bëgg na yalla li yu muy biral lakum ñeel leen seen seen yoon yi ngeen di jaar di muy jubal leen sunan alladina yo ni nga xam min qablikum ñi nga xamne ñoo leen jitu won ci baax yoon yiñ jaaroon yalla dafa bëgg leral loolu ndax ngeen jaar ci wa yetooba mu nangu Ali aleykum ci yéen ya yàlla alimun aji qamla hakimun ya yàlla aji xarala la wallaahu yàlla yuridu dana bëgg an yetooba muy nangu tuub aleykum ci yeen wa yuridu dana bëgg nak lazina ni nga yete bi yettabiuuna ñooy topp shahawaati bànneex ya ñooñu nak dañoo bëgg an tamilo ngeen jeng may leen jeng go xamne ne adiman aji mag la yuridu la bëgg na yalla an yu xafifa muy oyafal ankum ci yeen motax mo indi àtte ne wa xuliqa bindeef na linsaanu doomu aadama daifan mu yaa ji doyadi ci kanam li mu bëgg li mu bëgg daal daf ciy doyadi ba dootu ci am xel moo tax mu indi ci ak yombal yaa ayyuha dina amanu ey yéen gaa ñi gëm alquran laa taakulu bu leen lekk amwaalakum seeni alal baynakum seen diggante bil baatili ci caaxaan te mooy riba ak naxante ak lekkaali li jaambur ci lu du teeg bakkanam bu leen ko def illa an takuna alal daal bu leen ko def lu mooy ci yoon woowu xanaa boog mu nekk tijaaratan di ak yaxantu di ko jënd di ko jaayaat antaraadin fekk yow mi ngay jaayante ki ngay jëndanteeg gërëmante ngeen min kum ci yéen ca la ngeen di jaayante kon loolu amatul benn nax duñ wax rek ne fukk laa ko jëndee jaay naa ko ñaar fukk bénéfice bi bari na loolu du tax mu xaraam bu fekkee antaraadin la man maa ko moom lii laa koy jaayee loolu dara nekku ca wala taqtulu bu leen rey nag anfusakum seen bopp bu leen rey seen bopp mooy bu leen dugal seen bopp ci lépp loo xam ne loraange moo ciy jóge ñeen leen ndax sa bakkan bi moom moo ko nit ki amul ah, nit ki amul xaq amul droit ci rey boppam ndax itam li usul di wax alxuququ al amma wala alkulliyaatul amma kulliyaatul xamsa yooyu kenn moomut leen amut ci kenn ku ñeme wax ne maa moom naa ci def lu ma neex mooy sa bakkan moomuloo ko lolou moo boko boo yon dal ci sa kaw buñ la yëgee téye la def sa dom momin it moom moo ko société bi yépp ko mom yalla ko mom soko ko na ray ñu bañ wala boko boo paré ñu japp la ca alal kenn momuko so soo génnewoon lak ci mbedd mi léegi tay ñu japp la ndax moom moo pour ñëpp la rek boy dem bàyyi fi bo fi nekké nga bokk ko ak dom adamay diiné kenn momuko boko boo ko ba tay ñu japp la moo tax usul di wax né xam xamsa kenn moomut leen loolu moo tax yàlla ne wala taqtulu bu leen rey anfusakum seen bopp inna laa nag yàlla kaana mu sumoo dañ raximan daa ji yéram bikum ci yéen wa man yafaal ku def na dalika loolu mooy jéem a rey boppam dugal boppam ci loo xam ne daganut lekk alalam ci caaxaan mu ku def loolu udwaanan ngir ak noonee ak tooñ fa safa nuslihi dana nu ko jaaral ëllëg naaran aw safara wa kaana mosul deñ zalika dugal safara ku tooñ mosul deñ yasiran daa ji yomba àlalaay ci yàlla léegi nag su fekkee ne doomu adama <coughs> dafa bàyyi bàkkaar yu mag yi yàlla nee na dana ko dana ko faral kon bakkaar yi nga xam ne mooy yu ndaw ulamaawu tafsir jubóowuñu ci yan bàkkaar ñoo mag ak yan bàkkaar ñoo ndaw waaye am na ci ñoom ñoo xam ne dañu jàpp ci ay xadis di wane na daal bakkaar yu mag yi daal bakkaar boo xam ne su ko nit ki defee bu ko nit ki defee dana yëg ne def na bakkaar dana tiit dana tuub booba bakkaar ku ne xam ne ne bu ndaw la ndax yëg gim ko yëg tuub ci ki nga xam ne mooy jégle bakkaar booba ndaw na bakkaar bi mag nag mooy bakkaar boo xam ne su ko nit ki defé day melni yëgut ne def na bàkkaar yoonam nekku ca du ca tit du tup boba magna na yenenti bi ne la dan ba mal istighfar wala istighfar ma al israr lolou la waye jàng nañ ci bukhari ak muslim mu indi juróom-ñaari bakar ñu ne yaakaar nañ ne moy yi gëna mag lutax mu ne yaakar nañ ne mo gëna mag dañ ko tuddé al mubiqat as saba noonu la génne ci buxaari ak muslim ba yonent bi ne wattu leen almubiqaatu saba wala ñu tuddee ko almuhlikaat ijtanibu saba almubiqaat wala almuhlikaat wattandiku leen juróom-ñaari bakkaar yi nga xam ne day alak maanaa day taxa dugg safara ñu ne yooyu juróom-ñaar la ñu ne kon nag comme yàlla wax na ne juróom-ñaari bakkaar a ngi day alak wala day dugal safara ñu yaakaar ne kon aman na yooye la ñuy tuddee bakkaar yu mag ya yooya ni mu génnee ci buxaari ya muslim ba ko yonent bi waxee saxaaba yi nekk wa ma hiya ya rasulallah lan mooy al mubiqaat bàkkaar yi mu ne bu njëkk bi mooy bokkaaleeg yàlla boobooy bu njëkk bi bu ñaareel bi mooy rey bakkan bi yàlla xaraamal ci dëgg mu nga ko ci tey bu ñetteel bi moo di ak njabar bu ñeenteel bi mooy lekkaale li jirim bu juróomeel bi mooy lekkaale li riba bu juróom benneel bi mooy daw ci jihaar ca kanam noon ba bu fekkee ëpp nañ ñu ñaar ca bu bu mujj bi mooy xas gor su jigéen su sangewu nga xas ko teg ko ak teg ko ne day def na <clears throat> loola la yeneen yonent bi tuddee almubiqaat asaba muy juróom-ñaari bàkkaar yi nga xam ne ne nañ moo gën a màgg ci bàkkaar yi ndax loola nag kon mooy kabaayir ya wala duhut loola loola moom dañ koy delloo ki nga xam ne mooy tabaraka wa taala waaye li wóor daal mooy bakkaar bu nit ki jéggalu réyatul ndax dañ ko koy baal bakaar bi borom fàttee néewal ko doole boobu moom moo rëy ndax daf fi nekk moo tax alquran ne in tajtani bu ndem teet ngeen ka baayira teet mooy wattandiku ka baayira maa way maggi loo xam ne tun xaw na def na tere leen ko anu ci moom nu kaffir ñu nitam ñu far ankum ci yéen sa yaatikum seeni bakkaar wanut xilkum ñu dugal leen mudd xelan dugguwaay yoo xam ne kariman aji tedd la te moo di njéggalal yàlla bay na loolu mu ñëw ci li ñuy wax yaatu ay mébét yaatu mébét ak buggee ndax yaatu mébét mooy indi bëggee bëggee mooy indi kañaan ndax su sa mébét yaatoo lu nekk nga bëgg ka am kon loo gis kenn am ko nga teg ci sa bët danga koy daal di bëgg am soo ko bëggee am yéex ko am boo sàgganee nga añaanee kooka loolu mu am te kañaan mooy kii li mu am na ko ñàkk donte duma ci jot <laughs> loolu ci xeeti bakkaar yi yu mag yi nga xam ne ci kabaayir la bokk mën naa bokk ci yóbbu safara ndax boo seetoo aadama alayhi salaatu wasalaam <clears throat> bakkaar bi nga xam ne moo ko génnee aljanna wala jannatu ba mu nekkoon ba dem ci àddina moy de xer xer gi mu xëroon ndax iblis mo ne ko won ala adlukum ala shajaratul khuldi wa mulkun la yabla ma tektal len euh, nguur goo xam du jeexati beug gi mu bëggee xer ci nguur gu du jeex moo mu lek garab gi ko ayé won ndax dañ ne ko gi boko lekke doto doto doto genn fi koku kooku moko ko genn moko genné ci iblis momitam itam kañaan moo tax yàlla ndax biñ ne ko na nga ñëw su jootal aadam mu ne loolu duma ko def ndax kii yaa ngi ko bind ci nangam ma bind ko ci nangam man añaane naa kii boobu daraja loolu bokk na ci li ko alak bokk na ci li alak iblis moo di rëy rëy moo di ne kii ci ban lañ ko bindee man ñu bindee ma ci safara kon maa ko gën gis gi mu gis ngeneel ci kaw kooka loola mooy li nga xam ne moo ko alak loolu moo tax alquran ne wala naw bu leen mébét maa faddal la la gënal naka laahu yàlla bi ci xeeti am am baadakum leen ci yéen la baadin ci ñenn ña lir rijaali ñeel na ay góor nasibun cër bi mag tasaboo ci li ñuy fàggu danañ ci am cër alxajazi nee na asbaabu sooli ay jooju mu ne ay riwaayaat yu bare bari la ci nit ñi wax ñenn ñi dañu wax ne rek affaire miraas moo ko tax a jóg ñu ne déedéet affaire yi eh, jigéen ñi nga xam ne dañ daan mébét naan lu tax ñun du ñu jihaar góor ñi di jihaar yàlla di leen fay di leen dig aljanna ñun bokkuñ ci yàlla ne len nak wala tamannaw bu len mébét ma faddal la gënal naka allah yàlla bi ci mom baadukum len ci la baadin ci ñen ñi li rijali ñel na ay góor nasibun ab cër mi mag ci li ñuy faggu wali nisaayi ñel na jigéen nit nasibun ab cër mi maktasam na ci li ñuy faggu wasalullah na ngeen ñaan yàlla min fadlihi ci ngeneen la allahuma inna nasaluka min fadlika al bi rahmatika ya arhamar rahimin axfir lana انصرنا ولا تنصر احدا علينا وزدنا ولا تنقصنا يا رحيم يا رحمن ان لا نك يلا كان مسمودن علي من داجي قام بكل شيء انت لبلف ولي كل نيال كيب كو قام نك نزرك جعلنا دف نكو مواليا اي مبير يو قام ندف كوي مينغو موكو ينط موكو موم تي طريقه با معنا وقت وو قام نك في وانيكو بدم با ويجي برامم لم في باي am na ñeneen ñoo xam ne ñooy mawaliya ñooy méngoo mbir ma gannaawam li ma taraka ci la bàyyi na ko alwalidaani ñaari way jur ya wala aqrabuuna ak way jege ña wala dina ak ñëpp ñi nga xam ne àqadat fasoo fasu woon na ay maanukum seeni kóolëre loolu nag ulamaaw tafsir dañuy wax ni wala dina àqadat ay maanukum folli nañ ko ndax def ne woon ñooñu faatuhum jox leen leen na siboom seen a cër moo di ne bi ñu gàddaayee ñëw Medina dañu daan jël di def muwaaxaat bay na saxaaba ñee ay tumuranke lañ dëkkuñu fii ñii ñëw fi dëkk mu seetu kenn ku tumuranke ku nekk jógee màkk mu ne diw mooy sa doomi ndey def muwaaxaat ba saxaaba yépp jeex muhaajiroon ak lan saar léegi nag ci jamono booba ku xas nekk saax nekk sa mbokk léegi bu dee sax danga koy donn loolu mu amoon waaye ba ayatul miraas yi ñëwee nag ñu folli loolu moo tax mu ne walla ji ñi nga xam ne àqadat fasu woon na aymaanukum seeni kóllëre rek seen diggante ñooñu faatoohum jox leen leen nasibahum seen cër inna laa yàlla kaana musumoo dañ shahidan di aji fekkee ala kulli shay lépp lëf rek ca kanamam lañ ko defoon fekke na ko léegi ma ngi dugg si ci biir kër gi kër gi góor a fi nekk ak jigéen moo tax mu nekk kër góor dong du tudd kër jigéen dongit du tudd kër fokk góor nekk fa jigéen nekk fa mu door a tudd kër guñ samp loola nag su amee comme ñaari bopp ñoo yore kër ga fokk dina am bopp boo xam ne moom la ñuy wax ne moo moo jiite ka jiite nag moo di euh, ku góor ka kooku la yàlla def ci moom kilifteef ga ak kaddu ga moo ko war a yore tax na ba ñoom ñaar waxtu wu wax doxee seen diggante ku góor ki ku jigéen ki booy atte seetlul rek bu fekkee ne lu ñuy laaj la mu ñu war koo joxe kon ku góor kee tooñ ndax moom loolu rek moo moom la fa nekkee ñuy laaj muy joxe rek <laughs> loolu ay mbiram waaye bu fekkee kilifteef ga la ak baat ba kon ku jigéen ki moo tooñ ndax moom it loolu rek la war a nekkee baal mu bàyyi defal mu def far suuf kee far kaw kon nag joxe lu ñuy laaj te joxe wuñ ko daal <laughs> bu taxee ñu xeex ku góor kaa tooñ moo bàyyi li mu waroon a def waaye bu ñu sedd bu ñu xëccoo kilifteef gi xamal ne ku jigéen ki moom itam moo tooñ jigéen nag alquran dafay wax ne ñaari mbir daal mooy am ci ñoom am na jigéen joo xam ne ju yiw la su jaamu yàlla jotee mu jaamu yàlla bu topp ndigalal jëkkëram jotee mu def ko bu fa jëkkëram nekkee mu déglu ko su génnee mu wattu alalam wattu boppam ngir jëkkëram loola moo ci néew waaye ko kaa ca baax moo tax yonent bi ne ki gën ci jigéen ñi xayru nisa allati iza nazarta ilayha sarratka wa iza amartaha ataatka wa in xibta anha xafidatka fi malika wa nafsiha ki gën ci jigéen ñi mooy koo xam ne soo ko xoolee yow jëkkër ji melokaanam bégloo la soko ko mu top la so fi nekul mu wattu sa alal wattu bopam ngir yow waaye koku moy ki yiw ki mbiram ñaarel ba nak moy ki nga xam ak dafa nek ci mom te ayé ji di ko légui moy ndaw si nga xam dafa soosente soosente wala fi xóot la ku mer ki nga xam dafa mer dal di bëgg jël ay ndabam pour génn dem loolu la ñuy wax ci wolof soosente kii def loolu nag quran def ne kooku ni ngeen di mën a jëflanteeg moom moo di ñetti mbir mbir mu jëkk mi moo di ne da nga koy waar ci yàlla wan ka dëngee jëkkër ana man mbugal la ci yàlla yi tëkkoo yan duma moo koy xaar ëllëg bu fekkee loolu jariñ na te lu gën a bari du jariñ ndax ragal yàlla ga moo xóotul ci ñoom mu ne nga tong ko mu ne nga tong ko ci sab joxe wala nga tong ko ci say wax wala nga ber ko ci tër bu fekkee jëriñ na bu fekkee jëriñul nag alquran ne nga jël ab yar ndax léegi dafa génn ci dayob nit ndax nit ku gëm yàlla dañ koy waar ci yàlla mu jëriñ bu loolu amut nga waar ko ci li nga koy jox ak li nga koy defal mu jariñ bu ñaar yooyu jëriñatut génn ci xududul insaniya nekkatul nit dafa mbaame mu ne kon nga jël nag aw yet mu ne nga dóor ko dóor yoo xam ne deret du génn waaye ab yox du damm mu ne loolu nga dóor ko su fekkee def nga ñett yooyu yépp nag jëriñut ñeenteel ba mooy na nga dem ci mbokkam ay mbokkam toog say mbokk toog mu toog nga toog ngeen wax jataay boobale buñ ca waxee dëgg fa fa ñu defar ko mu baax wala ñu xamee ci ne du baax mu yàqu ku nekk dem saw yoon waaye boo deful noonu rek ñaaree na nga jum problème yi nga xam ne moo jot nak ci kër gi ñun mo di né duñ wax ñu gëna bari ci goor ñi suñu méré rek fase nañu képp ko xam su méré dal di fase lolu moy ki nga xam bala ëlëk fu né mu wër lan moko daganalat pour mu jot ci waye bu fekkoon su méré dina jaar niñ ko wax bala ag fofu it mbokk ndaw si am ku ko ci yek ñu wax amana duñu ag fofu kon nag teg gi ni ñu yàlla rëddal moo ñuy indil ay problème yu ñuy am buur ne arrijaalu góor ña na ñoo nekk di way taxawee kilifteef ala nisaa yi ca kaw jigéen ña ma wax jooju ndem yàlla xas na ko wax te yàlla bind nit ku bëgg lu mooy lu mooy lu duur loolu coowa yi ñëw rek waaye du sotti waxtu wu jigéen wootee mooy moom ak kër wala day ëm ak góor cooway bari waaye du sotti mukk ndax ki bind nit moo ne nii lay mel arrijaalu qawaamuuna ala nisa moo taxit ña ko daq woote ci àddina ba demoon ci pays yi ko gën a woote naan góor ak jigéen ñooy yem ñoom it dañ koy wax waaye duñu ko def nga seet seeni école góor ñaay ëpp seeni borom xam-xam ñaay ëpp seen ab gouvernement góor ñaay ëpp seen assemblée nationale góor ñaay ëpp te ñoom ñoo koy wootee sotteegu fa waaye du ma sa sotti fenn arijaalu qawamun ala nisa ki bind nit moo ko wax li ko waral yàlla ne bi ma faddala bokk na ci la na laahu yàlla baadum yenn ci ñoom ala baadin ci ñenn ña dafa am ay mazaya alxuluqiya wal aqliya wal axlaaqiya yu nekk ci góor te nekkul ci jigéen wa bi ma anfaqu ak kàttan la ñuy dundalee min amwaalim seeni alal ndax itam nag law farat naa ñooy yem kon bu ñuy ngoro ku nekk dafa war a wut téeméeri ñu dajale ko defaree kër gi waaye comme kii mooy maye mooy joxe mooy wadd xam nga ne kon wa bi ma anfaqu min amwalihim fa saalihaatu jigéen ju yiw ja moom day ñoom day qaanitaatun way toroxlu lañ way topp lañu xaafidaatun way wattu lañu lil xay bi ci fàdduk seen jëkkër bi ma xaafida ci wattu na leen ko laaw yàlla wallaati jigéen ñi nga xam ne nag taxaafuuna yéen a ngi ragal nu chuzahunna seen ak sosent faizuhunna waar leen leen bu ngeen ragalee ñaaw ak jikkoom na ngeen ko waar ci yàlla jëriñut wahjuruhunna ngeen tongu leen fil madaaji'i cib tër jëriñut wadribuhunna dóor leen leen ndaxam fa in ataanakum bu ñu leen toppee ca bu jëkk ba nga waar mu topp bu làgg ci tongu nga waar topput nga tong mu topp bul àgg ci dóor loolu mooy fay na ataanakum buñ leen toppee ci benn étape fala tabxu bu leen sàkkooti nag alayhin ci ñoom sabilan weneen yoon ca étape ba ca topp ina laa nag yàlla kaana musumoo dañu aliman di aji xam kabiran di aji màgg su ko defee étape bu jëkk mu nangu nga bàyyi nangu wut bu ñaareel mu nangu nga bay door àgg ci bu ñetteel kon nag falaa tabxu bu leen sàkku alayhinna sabila naw ci yoon inna laa yàlla kaana mu sumoo dañu aliyan di aji kawe kawewut nag ci béréb kabiran di aji màgg màggewul aw yaramit wayen xiftum su ngeen ragalee nag shiqaaqa baynihima wuuteg seen diggante ndaw si neen moom du ci dem mukk ku góor ki it ne mayit kon bu yeboon a dem kon balaa ngeen a tàqalikoo fa baasoo yónni leen xakaman arbit muy kuy atte min alihi ku bokk ca mbokki góor ga wa xakaman ak keneen kuy atte min aliha ñu bokk ca mbokki ku jigéen ka ñaari délégation yi boobu yooyu ak teewaayu ku góor ke ku jigéen ka suñ waxee in yurida ñoom ñaari délégation yi buñ bëggee islaan ak defer aman na yuwaffiqi dana dëppale laaw yàlla baynuma seen diggante ndax yi ne laa yàlla kaana musumoo dañu aliman di aji xam mbiri sëy xabiran di aji dañ kump kon nag doomu aadama yàllaa ngi delloo si nit ci boppam nit bu dellu ci boppam dal di xam boromam te nit bu xamee boromam dal koy jaamu te kuy jaamu yàlla keneen ak leneen du ca bokk mépp mbir gépp jaamu yàlla guñ boole keneen ak leneen yàlla soxlawut yàlla nee na bi ci xadiisul qudsi waxal nit ñi ne ana agna shuraka ñépp ñaar ñu bokk mbir man yàlla maa gën a doylu koo ma booleel bàyyee naa kook bu fekkee danga ne yàlla ak diw yàlla ne bàyyee naa diw de bokkatuma yàlla ak nangam yàlla ne nangam rek waaye man bokkatuma koo ma booleel rek bàyyee naa kook ndax man yàlla yow yow jaam bi bi ma lay binde kenn fekkewul bu ma lay rey kenn du ci man dara waxtu woo yëgee man yàlla sama manki ba balaa maa def dara keneen bokk ca bàyyee naa kook rek ñu seet nag fan la ñuy mujj loolu mooy fondement wu lislaam mooy fondement wu imaan pas-pas boobu su xasee dëgër lu ci toppati dal di baax waaye su pas-pas boobu yàqoo loo indeeti du baax mu ngi mel ni tabax bu amul fondation lu mu gudd gudd day daanu shirk bu xasee am ci nit ki benn jàmm yàlla du baaxati ndax dafay màbb lépp li nga xam ne defoon nga ko ñaareel ba ku ci am ay way jur gannaaw borom bi la bind wayjur wi nga gën a war a gën a fonk ci kum mën a doonati muy ndey ja muy baay ja ñun dañuy safaane mbir ma bari na ci ñun ñoo xam ne am nañ keneen wala ñeneen ñoo xam ne ñoo leen gënal seen ndey wala ñoo leen gënal seen baay ñooñu dañoo juum te it bàyyi nañ nag li alquran waxoon gannaaw yàlla ay way wayjur moo ca topp ñetteel ba moo dina ay jege ñaale mooy ay rakk ki mag ki doomi baay Doa-mu jaay ak dañuy bàjj nak jege ñaale ñooñu ñoy ñoy usra mooy nekk famille ñooñu nga ci tofal ci rafetal sa digënté ak ñoom gannaaw ga nga doora dem ci sey dëkk ndoor loolu alquran di wax naan waabudullaha jaamu leen yàlla wala tushriku bu leen bi ak yalla sheen dara wa ihsanan def len ak rafetal bil walidin ci ñaari way juri wa bi zil qurba ak boromi jege ñaale ci ak bok wal yatama ki jirim wal masakin ki miskin wal jari ak ndor zil qurba kay borom ak jege ñaale ci bok ak deret wal jari ak ndor bo xamni al aljënu bi ci walla la da ngeen dendi keur wa sahibi ak ki and ak yow bil jan bi ci tukki mi ñetti ndor la ki da ngeen bok ci deret ki da ngeen den di kër ki da ngeen bok fu ngeen di wala am tukki ñetti ñetti dekk ndor am wam min sabil ak aji tumuranke moy ñu naan doomu yoon moy ko xamne ku bax la ci fam waye fi nak da dafay tumuranke wa ma malakat na ngeen def ci lepp lu mom nako aymanukum seen ndey jor mooy jaam yi ngeen moom di leen liggéeyloo léegi nag loolu dafay jottaliku ba yëgsi ci képp ku nekk ci sa suuf nga yelif ko da ko war a yërëm moo tax hadis di wax naan yërëm leen ñi ci seen suuf ki leen far ko itam mu yàlla mu yërëm leen inna laa nag yàlla laa yuxibu du fay man kaana ku nekk na mu muxtaalan di rëy rëy lu waakoon fa ku daa ji puugare ci xam-xam wala ci am-am wala ci man man ñooñu ñoy ñan xam nga ne nay li yaakar ne moy baña joxe alal naya ngi ci baña joxe daraja ji bu fekke ne sa daraja do ci xejal kunai fo nek duñ fa tudde ken sak bax kenen baxut sak man kenen manut yewit ku nay nga motax yalla ne man kana mukhtalan fakhuran rek tekke ca allazina dañuy nay dañuy nay ci seen daraja ñoo tolloog kenn wa yaamuruna ñuy digal naa sa nit ña bil buxli ci nay wa yaktumuna ñu nëbbit maa taawum la jox na leen ko laaw yàlla min fadlihi ci ngëneelam googu geneen xeetu nay la mooy nit ki ki nga xam ne am na lu ko yàlla baaxee waaye foo ko fekk du feeñ ci lekkam du feeñ ci solam du feeñit ci waxam suy wax toujours ma ngay deedeeloo ko jàmbat di nëbb ngëneel lu yàlla def na ko ci moom looloy wa yaktumuuna maa aataahum allahu min fadli wa atadnaa xare nañ xare nañ lil kaafirina ñeel yéefér yi aadaban mbugal moo xam ne muhinan aji doyadal la mu leen ana lu fu indi baatu kaafiriin dafa njëkkoon a wax ku réy réylu kuy pugaréew mu teg ca ku nay waaye ba tey baata bi yéeféri jibut waaye bi mu waxee kii dee deelu nga ne li ko yàlla jox mu di ko nëbb di jàmbatu kooka dafa weddi xéewal ak yàlla kafara bi niami moo tax mu ne waa atadna lil kaafirina adaban muhina walladina ñi nga xam ne yunfiquuna ñi ngay joxe amwaalum seen alal ria annaasi ngir njistal ak nit ñi kooku itam beneen gàkk la nayul gaa dana joxe waaye dafa bëgg nit ñi xam ne ma ngi koy def bu fekkee loolu ay ay na ja ndax wala yuminuuna ba ñuy joxe gëmuñu billahi ci yàlla wala bil yow gëmuñ bés bi it al axiri bu daay ji mujj ñooña nag kon ndem gëmuñu yàlla dañoo bëgg a njistalu seytaane mooy seen xarit moo leen tax a def kon seytaane la ñu àndal alquran ne kon wa man yakkun ku nekk na seytaan xarinan daa ji lënkoo lawoog moom fa saa kon kooku ñaaw na bon na xarinan ci àndaleem léegi wa ma za ana lan moo leen doon war ci métit ak coono suñ joxe woon seen alal ngir yàlla suñ ñàkkoon a rëy rëylu suñu santoon xéewlu yàlla wa maza alayhim lan moo leen doon war ci coono ci loolu law amanu buñ defoon yooyu yëpp te gëm yàlla billahi wal yawmil axir wa anfaqoo ñu dundale mi ma razaqahum ci la wër sëgal na ne ko laahu yàlla wa kaana musul dañu allahu yàlla aliman di aji xam biim ci ñoom dar seen dar réeru ko lépp itam xam na ko kon nag su fekkee ne nit ki lu mu def te jublu ci yàlla yàlla dana ko ko fay ndax maandute yàlla maandute ci moom la yem yàlla dafa maandu ba yowmal qiyaam dafay tëral benn baskil boo xam ne boo ci tegoon lu gën a woyof kawar itam mu dal koy génne baskil bu sensible boo xam ne du bay dara tax na ba képp ku fa fekk dara yowmal qiyaam na la wóor na yaa ko fi indi rek moo tax mu ne inna laa yàlla moom laa mu du tooñ misqaala darratin kem ba zarra zarra mooy pepp gaz atomique gaz bi ñuy liggéeyee bombe atomique yi gaz googu moo tudd zarra moo tax nga dégg ñu naan alqanabilu darriya zarra moomu nga xam ne gaz la gaz li muy sew-sew ab peppam moo gën a sew lu tol noonu boo ko tegee ci baskilu yàlla ci lu baax ak lu bon mu génne ko wayin takku bu nekkee la nga fa teg xasanatan lu rafet yàlla dafa baax ba yu mu fulande ko ñaar ca ko jox la fay la wayooti mu jox mi la dunu fa moom yàlla ajaran yool lutax mu ne min ladunhu boo defee benn ñu fay la fukk yow defa woon fukk kon juróom-ñeent ya fan la jóge ci yàlla moo tax mu ne min ladunhu fa kayf yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa woo abdullah ibn mas'ud ne ko kaay jàngal ma alquran mu ne ko waaw ibnu mas'ud ne ko mooy yonente bi man maay ñëw jàngal alquran nga di ma déglu te ci yow lañ ko wàcce woon mu ne ma waaye dama ko bëgg dégg ci weneen lammiñ wudul sama lammiñ muy jàng may dégg Ibnu Mas'ud di jàng daal di tàmbali suratu nisa di jàng di jàng di jàng ba ci fa kayfa is ji'naa min kulli ummatin bi shahidin wa ji'naa bika ala haulaai shahida inti bi daal jooy ne ko xasbuka al aan xasbuka ñaari bëtam di sotti ronkoñ mu ne doy na doy na ana lan lañ ko wax ba mu ne doy na yàlla def na ko fa kay fa kaw téef yow muhammad boo xamoon isa ji inaa bés bu ñu indee bi ka ci yow min kulli ummatin bépp xeet ñoo indi leen bi shahidin ku leen di seede xeet bu nekk seen yonente jiitu ñëw na yàlla yaa ma yónni woon ci ñii ñu ngi léegi ma waxoon waxoon naa leen ko am na ci ñoom ñu koy seede mooy ñu jàngoon laaj leen ñu ngi ni le yow it nag wa ji naa ñu indi bi ko ci yow ala haawulaay ci ñii kàccoor yii ñu indi la yiw itam shahidan ngay seede ñii ak lépp li ñu defoon yonent bi ne ko doy na doy na ndax loolu dina metti yow may sin keroog yawaddu dina mébét la dina ña nga xam ne kafaroo weddi woon nañ wax ji waa a asawte ñu daan mooy rasula ndigal li jóge ci yonent bi danañu tiit xam mbugal ma leen di xaar bay mébét naan lawtu sawwa donte caterpillar bi ñëwoon na yemale ñu maasale ñu al ardog suuf sa biim ak ñoom danañu tiit bay mébét bu ñu yemale woon suuf seeg ñoom rek maasale leen ñu ñàkk nekk ñuy dekki ñu leen di laaj ñuy jëm ci mbugal mi ak keroog ku defon lu banit da ko wax ndax nit a gën xam bopam ku nekk yaay netti saw yaram li nga doon def alquran wala yaktumuna du ñu mën a nëbb laa yàlla xadiisan wenn rek dañ koy waxat bayina lolu mu ñew ci sarti julli ak itam di jox di jox permission ku mënula japp mu tim sarti julli moy lap ci hadas lap ci qabas sutural sa jublu qibla waaye laab googu ci ndox lay doon léeg-léeg ndox du am wala léeg-léeg ndox dana am waaye doo ci mën a jot wala mën nga ca jot waaye yaram wérul ba mën koy jëfandikoo kon nooy def mu ne loolu tiim lay doon alxajaas yi ulamaaw tafsir yépp dëpp nañ ci ne abdurahman ibnu awf masoon na togg benn ñam ku amon alal la ci sahaba yi ndiwaale ay ay naan baba sangara haramagul indi wale sangara so ne ci raisin lañ ko liggéey sahaba yi ñew lek dal di naan ba mandi julik timis ñew ñu jital ali ibn abi talib mu ngi naan qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun wa nahnu nabudu ma ta'budun dal di jaxase maanaaye ya ak yépp mu yàq ko alquran wàcc aaya ji nag di wan ne daal waxaguma sàngara xaraam na de waaye bu ngeen mandeetee daal bu leen julli loolu mooy benn sabab bi Aïcha radiallahu anha ci benn xare bu ñuy tuddee bani mustaliq danañ ko tuddee bani mustaliq danañ ko tuddee bani muraysia غزوة بني مريسع ab qissaam gudd na lool ndax muraysi' moo doon teen ba mustaliq moo du giir ak yahud ga moo tax mu am ñaari tur ya yonent bi dem na ci ñoom takk leen gaw seen ba ak ndomb ñaar fukki fan ak lu kenn ci ñoom du kenn du wallu si ba ñu sonn lool ba ñu sonnee nag ñu ne léegi yabal benn waay buy négocier ci yeneen bi alayhi salaatu wasalaam ba mu ñëwee nag am ku ne ko léegi da ngeen di seet ci saaba yi ku ngeen wóolu rek ngeen ne nangu ngeen ab atteem yenent bi ne waaw nangu naa loolu ku ngeen wóolu ci saaba yi rek ngeen wàcc ci atteem lu mu àtt ci yéen ñu def ko fofa nak ñu xol sa'd ibn abi waqas comme saadu walan sar la wa madina la ñoo bokkoon dekk ak ñoom mu wor ko ne mu ne man mom dal wor na yalla, ndax lim wax waji ci ishara ci junju ne ko saadu mom rendi lay atté dal wor na lola xisaam ngi ci kanam mu dem ci jakk ji yew fa bopam ne fek bakkar bobu dañut wala yalla bal ko ndax wor na dotul jog fofu julit ni non lañ melone ba nga xamé né nak ñi ngay ñibbisi ci ghazwat bani mustalit te yahud yoy yep ñu japp leen indi leen génne leen ci marché banu qainu qa'in ray leen ñom ñëpp ba mu jé ba ñuy jeex tak ba seen kilifa ga bañ koy ray dañ waxal mujjëg wax mu né limay mujjë wax dal mo di ah, yahud yalla mo dogal ci ñom bésab dee tey ba ñoom ñëpp ñu war a dee waaye du tax nag lin fasoon ci kiig lin ko weddi ak liñ ko noonoo dara du ci wàññeeku ñu dëgër lañu woon ca loola ba ñuy ñibbisi nag ba ñu ñëwee ba ci yoon wa ñu ne dañuy noppalu ñu daldi tànt seen tant ya ku nekk nekk ci xëymaam Aïcha radiallahu anha moo demoon ci gazo boobule ñu wàccee tegu jagaajal gi tegu jagaajal teg la boo xam ne day ànd ak tàntam noonu la nekkee woon ci kaw gélém gi ñu wàcceel ko ko mu dëkk ci ba mu toogee moom Aïcha bee jëmmi jamono mu soxla faji ajo mu génn ba mu génnee ab caqam daldi fa dagg ci yoon wi léegi nag am na xew-xew yu ci yu bari yu xew foofale benn baa ngay ñëw ci xadisul ifki dañ koy xaar ba foofu ndax foofu la gën a matee ci suratu noor incha allah waaye li ñu soxla fii mooy ba caq ba daggee te bëgg nañoo gont muy wër ne des na ay per yenent bi ñëw di ko wërle per ya saaba yépp ñëw di wër per ya ñu far fa nekk ba tusubaar jot julli wuñu seen ndox ma jeex na ñu nag lu ñu jàppee ba Babacar ñëw jël yetam wa jam ko Aïcha ci biir bi ne ko ndaw si lee yaa bari solo tëj nga fi nit ñi ndax tëj nga yonent bi te mu ngi toog nit ñi duñu dem ba su ndox jeex na naaj bi lakk nañu amuñu ndox julli jot na nan la ñuy def nag comme Babacar mooy moom ñeme na aaya bi daal di wàcc nag ne bu julli jotatee wala ngeen jóge gannaaw kër ga wala ngeen am janaba wala ngeen laal jigéen te ndox amut na ngeen tiim loolu nag kenn ku naan asid ibnul xadayr daal di ñëw ba ci bergene Aïcha mu taxaw ci bunt bi daal di ne ko maa ak sara barakatukum yaa ala abi bakrin yéen la yàlla xéewal yéen a bari barke ndax yéen xat-xat bu ngeen nekk yàlla daf ci indil nit ñi ak xéewal ma nazala biki ya aïcha amrun takrahinihi illa jaala allahu taala fihi lil muslimina faraja ndax it sa dogub caq gi ak sa coono bi moo indi yàlla daganal jël ay loxo dóor ko ci suuf raay ci xar kanam ak i loxo mu tolloog njàpp loolu ma wàccee tim moom la buur di wax naan yaa ayuha alladina amanu yéen gaa ñi gëm alquran laa taqrabu bu leen jege salaata julli wa antum te yéen sukaara yéen a ngi nekk di way màndi na ngeen jékki xataa taalamu ba màndi jeex ba ngeen mën a xam maa na li ngeen di wax wala junuban bu leen nekkitam itam bu laa du caagan ngeen nekk ñu am janaba di julli illaa abiri sabil lu may koo xam ne dafa doon dox ci yoon di tukki te amul ndox lii kum dal bu mu julli xataa taxtasiloo lu may bata ngeen sango léegi nag wa in kuntum ndem nekk ngeen marda di way feebar aw ala safarin wala ngeen nekk cim tukki aw jaa wala dikk ahadun kenn min kum ci yéen min al gaiti bàyye ko ca fajug aajo aw laamastum wala ngeen laalante an nisaa ak jigéen falam tajidu te amu leen maa ndox fa tayamamoo tim saidan pak tayiban budaji budaya ji fam bu ngeen di tim nang nan la na ngeen masa masa moy ray, bi kum sen xarkanam di kum ak sen loxo loxo mu ngi yem ci fi ñuy takk montor jëm ci baram yi lolu moy yeddu ñu jamu ko ci aidi lolu moy farata ci tim nga ray ko mo xarkanam ba la ci dess ay sunna la sunna ko yendi ina laa nag yàlla kaana mu sumoo dañ afuwan di aji bale xafuran di aji jéggale bàyyi na loolu ma ngi ñëw ci yahud yi ak seen jëf ja alam tara buur ne ndax xamuloo ila la jëm ci ñi nga xam ne oto joxeef na leen nasiban ab cër minal kitaabi ci téere bi yashtaroona ñuy jëndee adalaalata réer ga ak loola wa yuridoona ñu bëggit an tadullu ngeen réer asabila yoon wa loolu la bëgg mooy yëhoot yooyu nga xam ne xamoon nañu alquran xamoon nañu lépp loo xam ne nekk nu ci alquran ñu soppi ko ngir weddi aka ak ak noone wallaahu yàlla aalamu moo xam bi aadaayikum seen i noon wa kafa doy billaahi ci yàlla waliyan di aji méngoo seen mbir wa kafa doy na billaahi yàlla baa bi toujours zayid la nasiri nasiran di aji dimbale leen wa min alladina bokk na ci ñi nga xam ne haadu ñoo yëhootu ñoom day ñooy ñi nga xam ne na ñooy soppi alkalima baat ya an mawaadiihi ci bérébam ba di fa def leneen wa yaquluuna ñu nga naan samicnaa dégg nañ waaye waa asaynaa dégg nañ tigi li muy wax waaye duñ ko def wasma déggal xayra musmain waaye nekkoo ku ñu forcé ci déglu gi ak topp gi déggal waaye kenn forcé wuñ la wa raina ñoom ñoo doon wax kalimatu raina ba li nga xam ne moom lañ jàngoon ca gannaaw muy raina ja ñu ngi koy wax nag la yen ñu ngay nooyal bi alsinatihim ci seenu lammiñ ndax raaina ci làkku yahud firi woon nan lu muy tekki boo ñoom nag baat boobu ñoom ñoo ko doon wax wa taanan dañoo bëgg dëbb mooy jam ak kiritige fi diini ci diine walaw annahum donte naka ñoom xaaloo waxoon nañ ne sami'naa dégg nan waa naa topp nañ wasma déggal wan zornaa te nga muñal ñu la ñàkk wax raaina xanaa ñu wax wan zornaa la kaana nekk loolu xayran di a jigéen la um ñeel leen waa qoom mooy gën a jub walakin waaye laanahum eh, rëbb na leen noon lañ koy firee ci luxa waaye waxoon naa ne ci biir téere bi da nga koy wattandiku da ngay wattandiku baat yooyu ndax eh, eh, ci tawxiid yàlla du mel noonu yàlla comme du rëbb da nga naan laanahumullahu soril na leen buur bi ak yërmande fiil jéeg fail jéeg mafaul mi yépp ngay bokk firi laanahumullahu soril na leen buur bi ci yërmande bi kufrihim ngir seen kéefér falaa yuminuuna du ñu gëm illaa qalilan <coughs> lu mooy lu tuuti léegi ma ngi ci di xupp ñi nga xam ne li alquran ji di wax dañ koo teg ay waxu caaxaan ak i mboosóor moo xam ci àllu kitaab la wala ci nun ñooñu lay wax ne kaay leen ngeen gëm alquran ji balaa ba sa ñëw bés boo xam ne su ñëwee dañuy mar maral ab xarkanam koo xam ne dafa doon weddi ba du amati bët du am bakkan du am gémmiñ du am nopp balaa moo dugg safara kaay leen gëm balaañ leen a alag niñ alagoon yahóot ya doon napp ca gaaw ba ndaxit it gëm balaañ laa alag di la bugal moo gën te itam arab dafay wax ne al aqilu man wuida bi xeyri nit ko am xel mooy koo xam ne danga waaroo ca keneen waaye bul toog bay waar say morom ci loolu mufassiroona yi dañ ko daan def aw léeb di wane ne ko am xel day gis mbir mu waaru ca balaa yegsi ci moom mu ne gaynde bi gaynde googu ak tillegi ak kunde gi rëbb nañu rey nañu genn kéwél gaynde ne kon nag kunda yow na nga séddale ñun ñett la nga séddale ñu kéwél gi kunda daldi ko dagg ñetti xaaj yu yem képp bi man bi tilla bi gaynde gaynde ne ko ah nii nga ko séddalee mu ne waaw gaynde ne ko farit kunda dee bopp bi dagg dal fële mu wequ ba sedd gaynde ne tilla demal yow nga sedd la tilla daal di boole yépp jël bopp ba teg ko fële ne ko pare naa mu ne an sab cër mu ne bopp bi doy na ma ndax man gune laa yaay mag mu ne ko kaw téef yaa mën a séddale ma foo ko jàngee mu ne boppi waajale mu nekkoon ku am xel da ngay waaru ci sa morom balaa ngaa waaru say morom mu laal alquran nekkoon nag kaay leen waaru ci ñiñ defoon nii balaañ leen a def nii le yaa ayyuha alladina uutu ee yéen ñi nga xam ne joxeef na leen alkitaaba téere muy yëwat ak nasaraan aaminu gëm leen bi ma naa ci li ñu wàccee ci yenent bile te it nag nekkul lu tumuranke ndax mu musaddiqan mu ngi nekk di aji dëggal li ma maakum li nekkoon fi yéen téere bi ngeen amoon bii da koy dëggal na ngeen ko def léegi min qabli an natmis balaa ñoo marmaral wujuwan ay xarkanam fanaru daa nu delloo ko ala adbaariha ca gannaaw yàlla ngi yore xeet yi mbugal yowmal qiyaam yoo xam ne wal iyaadu billah doy na dana ñoo xam dañuy seen xarkanam du amati dara ñu door a dugg safara am ñoo xam ne dañuy sampi bopp bi sampaat ko ci mu jublu ca gannaaw loolooy fanarudduha ala adbariya aw na la an nalaanhum wala ñu rëbba leen sori leen suñ sunu yërmande kama laat na naka ñu rëbbee woon asxaaba sabti waa gaawo ba te loolu jàngoon nañ ko ci gannaaw wa kaana musul dañu amrullahi ndigalal yàlla ma mafulan lu ñuy def la imma tawan wa imma karhan waaye ndigalal yàlla moom fokk rek lu ñuy def la ku defut fii da nga defi karhan borom bi tabaraka wa taala bàyyi na loolu ngi bëgg a wane teraangaam moom ak njëggalam nan la toll waaye njëggalal yàlla li muy rëy rëy am na fu mu yem am na loo xam du ca masla du ca kaf du ca fo du ko bale itam te loola moo nu gën a jaaxal ndax moo gën a bari moo di bokkaale bokkul ci li yàlla di bale waxtu woo xamee ne sa xol bi yàlla bind ci sa biir gëm na kàttanal qaxaru ci man-man ab ku duhut yàlla fa yowmal qiyam wala lépp loo xam ne ci sifaatullaahi la yépp melokaan yi yàlla jagoo donte géñ ci turam la te loolu moom moo ko jagoo walla ren di tudd aw turam wala lu tudd aw turam ngir xettaliku nga xam ne moom rekk ko jago yooyu loo ci jox keneen wala nga jox ko leneen rek yàlla nee na sàkkal nga ma moroom nee na loolu moom mënuma ko ba maa ne loolu lu jaadu la danaay faral di misaal ne jabar ji ngeen di ci kër gi te bindoo ko moomoo ko juroo ko jëndoo ko itam teraanga tax mu dikk fi waxtuum la yemalee geneen góor rek nga tukkal àddina léegi wala mu génn fa te yow nag bindoo ko sax <laughs> fa kay fa nag yàlla mi la bind fu kenn fekkewut te bu lay jël kenn du ci mën dara nga bëgg ko yemalee keneen wala sax léeg keneen gën ko ci yow moo tax yàlla ne baax na nekk leen ci waaye may lii dinaa ko wax te duma ko weddiwaat inna laa yàlla de laa yaxfiru du bale an yushraka ñuy bokkaale bi yeeg moom loolu moom alquran nee na du ko bale aaya bi amul naasix amul mansuux takraar ak taakiid lay am ba téere bi jeex nee na moom loolu du ko bale te loolu jeex na wa yaxfiru dana bale nag maa duna zalika lu duhut loolu liman yashaawu ñeel ku ko neex li nga xam ne ku ko neex mu baal ku ko neex du ko baal mooy yenn ya waaye lii moom kenn soobatu ko ca xanaa lu mooy ko ca génn rek wa man yushrik bokkaale na billaay ci yàlla kooku yàlla nee na du ko bale lu tax mu ne ndax kooku xadif tara duudal na duudal na yàlla luy duudal na yàlla nañ jël misaal ci lu gën a tuuti na la pëkk sel léegi nga tudda leneen walla nga tudda keneen loo wax foofa danga wax ne bu jàqare ñëwee kooka moo ko mën a xettali waaye du yàlla yow yaa wax loolu na nga ñëw yàlla ne ilzaamu maa laa yalzam bi usul di wax mooy waral sa bopp lu la waruloon te mooy géñ billaahi dinaa def wala duma def lu la waruloon nga waral ko sa bopp lu la waroon nga teggi ko ngir ngéñ yàlla ne kooku sama tur rekk la nga tudda keneen nag def ca loola nañu rendi nga tudda keneen yàlla ne ne isxaaqu ruuxi génnee ab bakkan ab ruuxu kooku sama tur rekk la waaye turu keneen yellowu ko yow itam nga dem tudd fa keneen nañu lekk wala nañu naan nga seet bismillaahi ni mu toll nga jël turu keneen booy lekk tàmbalee ko wala booy naan nga tàmbalee ko nañu jël xéewal ni mu neexee te mu nekk ci loxol yàlla daal nga sant ca keneen ku duwut yàlla yàlla ne kon nag te buñ seetoon ci dëgg-dëgg ku seet ci sa bopp danga xam ne ka nga sant ca xéewal ka nga tudd ca ngéñ ka nga tudd ci xettaliku xam nga ne manu ko manu ko bi mu fi nekkee ndax bu ngeen soree du la yëg rawatina bi mu fi nekkut moo tax yàlla nekkoon ku ko def faqad iftara duudal na duut mooy teg lu fa nekkut isman bakkaar aziman bu mag duwul ne dafa toggoo bakkaar waaye daf ko duudal yàlla ndax dangaa duudal yàlla ne am na kem bàyyi na loolu mu ngi ñëw ci alul kitaab ak pay ga nar na leen a xaar ëllëg ngir natijatu seen jëf ju ñaaw ji nga xam ne danañ koy jëfandikoo ikrimata ibn bi jaal dafa wax ne kenn ci saaba yi la dafa wax ne kaab ibnul ashraf benn mag la woon ci magu yahud yi mu ne kaab dafa mos dem ca kufaaru quraysh ba mu demee màkk ne leen léegi daal dama bëgg nu def benn pacte juboo ci mel ni mbir daal war a songi yonent bi xeex ak moom ndax ñun am na nañu téere xam nañ li baax ak lu bon yéen amu leen téere kon nañ def pacte ñu juboo dal ci moom ah ñu ne waaw yow day comme yéen alul kitaab ngeen te ñun amuñu benn téere ñun Quraysh dañ leen a wóoluwut yéen yahut ndax li tax wóoluwuñ leen mooy ñun amunub téere ay xiram la ñuy jaamu suñu yàlla yaa ngi fii di mat ñetti téeméeri yàlla ak juróom benn fukk te suñu yàlla yooyu yéen alul kitaab da ngeen leen a weddi kon nag bu ñuy def ak yéen ab pacte di songi keneen ko am téere ni yéen wóoluwuñ leen xanaa lu may lii rek nga signal ñu lu wóor signal wóor moo di ne su ñaari xërëm yu mag yii benn muy asaafa wala nailata ñëw ba ci kenn ci ñoom nga julli nga julli ca gannaaw xërëm ya su jootal leen kaab ibnul ashraf naafiq la saay-saay la foo de yahud la woon ju mën a jàng mu daldi ñëw su ñaari xërëm yooyu ba pare Quraysh ne ko nakam léegi nak waxal atel li nu di jaamu ñii mo gën wala li Muhammad nek di jaamu kum dul gis lu ci gën waxal nu noo ngi nii ku mak bi bésab aj no lay jox ndox nga naan ci sam-sam nu nooy odd kaaba gi noy lacc suñuy gëlëm nek mutawif ni ñepp di don ci sani mutawif moy ku dem mak da ngay dal ci kër nit mu di jox lek ak naan ngay war gilam dem arafat ba dikkate do fay dara loola mo fa amone loolu karaamal arabiya la woon mu ne mu ne ñun ñooy def loolu kon nag ñun ñoo gën wala li muhammad nekk moo gën kaab ibnul ashraf ne yéen a gën yéen a gën a jub alquran ne alam tara ndax xamu ila ladin jëm ci ñi nga xam ne yu zakkuuna ña ngay sellal anfusahum seen bopp bal lu fi nekk allahu yàlla yu zakki umrake mooy sellal man yashaa ku ko neex te àllaaxira nag wala yudlamuuna defu tooñ leen fattiilan lu tol ni fattiil fattiil mooy buum gu weex gi tëdd ci xuru saalu tàndarma ba moo tëdd fattiil alquran dafay misaal ca ci ci tàndarma ñetti mbir yu xeebu yoo xam ne kenn du ko lekkaale amul benn njëriñ ñam lawu laa yusminu wala yuxni muy fattiil akitmir ak naqiir loola dafa xebu ci tandarma fatil moy redd wi boom gu weex gi ci teud amul ben njëriñ du nek ci tandarma jep ci najwa bi lay faral di nek. moy gi nga xamne toyul naka noonu xitmiir itam ci tandarma bobu lay nekk mooy mbubb mu weex mi nga xamne day faral di mur tandarma ju toyul joju koku itam laa yusminu la yuqni amul ben njëriñ naqiir nak soo bate salba ci gannaaw fa muy saxé boo jiyé lolo moy mooy yalla nak nag yu xeebu yooyu la koy tuddé mune Al alaxira duñ togn kenn lu tolni fatil al alquran ne undur setal nak kayfa nu yafturuuna ni ñuy al alkaziba ay nar alallaay ci yalla wa kafa doyna bi ci yalla ci ci dudal gi isman bakar mubinan budajibir. jibir mu ñëw nag ci Kaab ibnul Ashraf ak képp kuy mel noonu mooy képp koo xam ne masla ak mudahana ak mu mudaarante da laa yóbbu ci jaamu këram ak shirk ngir masla la wala xatarul mu jaama la tubaab wax danger de la courtoisie képp koo xam ne loolu moo la yóbbu ci nga jaamu xëram nga def shirku yaa ngi mel ni Kaab ibnul Ashraf mi yàlla di wax naan alam ndax xamu ila lazina jëm ci ñi nga xam ne ootoo joxeef na leen nasiban ab cër minil kitaab bi ci xam-xamub téere bi ñu teg lañ xamoon fale di masla ba yuminu nañu dem di gëm bil jibti wa taaxuuti yi ci iblis ak i xiram wa yaqulu na ña nga naan lilladina ñeel ñi nga xam ne kafaro weddi nañ naan leen haawulaay ñi day ahda ñoo gën a jub min alladina ci ñi nga xam ne amunu gëm nañ sabileen aw yoon ñoo ko wax ulaayika ñooñu la dina mooy ñi nga xam ne laanahumullahu soril na leen buur bi yërmande wa man yalaan ku soril na ko laahu yàlla yërmandeem ak koo ko yàqu na falante ji da fekkati la la wañeel ko ci yowmal qiyam nasiran ku koy teree walis mbugalam yàlla waaw lu leen dugal ci loolu am lahum ndax boog ñeel na leen nasibun cër mulki ci nguur gi xëy na boog yàlla dafa wax ne maa ngi yéen noo bokk nguur gi ba tax lu leen neex ñu def ko fa isa su fekkee loolu amoon na day danañu nay ba laayu tuna du ñu jox naas nit ñi naqiiran lu tol ni bëtt bëtti gannaaw saalu tàndarma am yax su moo ndax dañoo añaane naas nit ñi moo tax ñu wax loolu ala ma aataahum la jox na leen laaw yàlla min fadlihi ci ngëneelam ci yenintaam ci xam-xamam ci am amam ndax loolu kañaan a tax ñu wax loolu su fekkee kañaan gi ñu kañaan moo leen jot ba bu ñu yónnee ab yónent bu bokk ci bani Israël tax ñu mere ko ba weddi ko na ngeen xam ne man yàlla ma joxoon Ibrahima ak keneen ak keneen maa jox kii moo tax mu ne fekkee kañaan la faqad naa joxoon nañ aale Ibrahim alkitaaba téere ba wal xikmata xam-xam buy jëriñ wa aateynaahum jox nañ leen mulkan mu nguur aziman guddaay ji mag fa minhum nekk na ci sëti ibrahim man amana ku gëm na bii ci loolu waaye minhum nekk na ci sadiya man sadda ku dëddu na anhu walis loolu wa kafa doy na bi jahannama safara ba bi la sairan nekk di aw lakk sair dawe woon nañu wax ne benn tur la ci turu safara am na juróom-ñaari tur yu ñuy tuddee safara am na ñu wax ne ay tur la ñu ne ay bunta la ñu ne ay kër la jahannama ci la bokk sair ci la bokk بني وكفى بجهنم سعيرا يعني كفى بجهنم يكون مصلا لهم جهنم دنا داي نك سين نيار ولا جهنم داي داي نك سعير تي نيوم مو نك مترادفات ولا بوك مو نك بوي فيري ما مرام جهنم سعير حطم لظه saqara jahim, hawiya juróom-ñaari tur yooyu mooy nyari ñaari turi safara wala juróom-ñaari kër wala juróom-ñaari bunt bàyyi na loolu mu ngi ñëw ci payug kefer payuk weddi ak payug gëm yàlla su fekkee ne ñee dañ leen a jaaral safara wante yaa ngi naan safara rek war nga noo waxal nan la yàlla dugale safara yàlla ne bu dara desul lu mooy maa ngi alag ki nga xam ne weddi woon na sama téere daawun ma jaamu ki nga xam ne sàkkaloon na ma morom yemale woon na ma ak ñeneen ñaag yeneen ya mu ne kooku mbugal mu metti laa koy laa koy bugal naka nee na dama koy jox yaram woo xam ne wu doy waar la ci rëy dana ëpp ñey su ko defee ñu nooyal der wa ba mel ni deru yaramu liir mu ne buñ ko dugalee safara bu safara wa ñoree der wa ndax xam nga ne eh, loolu ñi jàng ulum ñoo koy xam metitu lakk-lakk ci der wi lay nekk metitu gaañ-gaañ it ci der wi lay nekk ci la xasaasiya bi nekk ba bu der wi ñoree ko woon sax ci biir wa dem dayo tax na ba der woowa lañuy lakk bu deru yaram wi ñoree ko ci safara sa ba jeex takk ñu génnee ko joxaat ko der wu bees bàyyee ko xol ndax mu mën mos métit woowale motax bur bi ni inna ladina naka ñi nga xamne ne kafaroo weddi nañ bi na ci suñu alquran ji sawfa nuslihim xal se nañ leen a jaaral naaran aw safara jaarute liwo woo kullama nadijat bépp bu ñoré juloduhum sen yi sen derwa badalnahum ñu wuutalal leen julodan aw der xayraha wu may wi lakkon lutax li yazuqu ngir ñu mëna mos al azab mbugal ma inna laa yàlla kaane musud dañ azizan ci kàttanam xakiman والذين نيغا خامني امنو گم نك نيوم وعملوا تني جف الصالحات فرت يك نافلي ньоญو نك سندخلهم دنان دوغال لين جنات الجنه يو تجري داي داو من تحتها تي سوفم الانهار يلينت خالدين ني دوي سخ فيها فوفلي ابدا تشاي موي لو خامني امول فمو فكلمه الاصلي الكلمه الابدي علماء آه، tasawuf wala al aarifuuna yi dañuy wax ne ñaari baat yooyu ci xam-xamu yàlla soo ko firee dana am ñu la xam ñu la dégg waaye dana bari ñu la du dégg ndax yàlla mu ngi jógee ci asal mu ngi jëm ci abat lépp lu am te yàlla ci li am la bokk ndax mooy cosaani li am dafay bàyyeekoo ci asal waaye ma nga jëm ci abat waaye yàlla nag boo ko toppee ndax ñun suñu asal wujud la woon waaye suñu abat dañ ñu fay yóbbu waaye yàlla nag moom asalam kenn sàkku ko te abadam du jeex soo ko toppee dafay mel ni dangay jóge asal jëm abat moom yàlla boo demee ba abat yeetu yàlla nga fekk ko muy asal nga yaakaaroon ne abat abat la waaye boo demee ci yàlla da ngay fekk abat di asal asal di abat mu ngi melni bu auto jaaron fi ba nga gis mu defee ne tracé bo ñëwé ci misal tracé auto bu fi jaar ba pare la loy abat ak asal Boko fekki wu do xam fu mu jëm do xam fu mu la mel abadam moy asal asalam moy abat loola la arifone yi di wax lahum ñal na leen fiyaa ci aljanna joju mana bu ci geej gele la nuy waxe tay Euh, ñun ñëpp demoon nan ba sori ji te buñ sori jee duñ dellu si yàlla ngi ñuy delloo si indi kiiraay ndax léegi leneen amutoon indi na leneen moo tax mu ne walahum fiha azwaajun am nañ fay jabar nga am jabar dal di am leneen ñëw nga dikkaat nekk nit tax mutaxaratun yu ñu laabal ci euh, xaydoog nifaas wa nudxiluhum dana dugal ñooñu zillan ay ker yoo xam ne dalilan yu lëw la yoo xam ne daal du am ay ceñeer te du jeex bay na loolu ma ngi ñëw ci ana ban politique la lislaam waxoon ne na ko nit ñuy jëfandikoo ci seen dundinu àddina ak seeni atte politik boobu moo di wóor bañ a wuruj kenn du la ger fexe ba maando sooy attee mu nekk dëgg nga topp borom bi tabaraka wa taala ci wàllu diineem nga topp yonent bi ci lim jege jëlee fa yàlla su mbir ñëwee bu lëntee xamuñ li cay dëgg ñu seetlu ci alquran wax buñ ko gisul ñu seetlu ci xadis wax loolu mooy dusturul muslimin constitution bi jullit ñi war a jaar mooy loolu li ko taxa wàcc wàcc euh, mufassiroon yi dañuy netti li ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog xare fatxu Makka ba mu ñëwee dafa tawaf ba pare daal di laaj usman ibn Mas'un wala usman Ousmane ibnu Talhat ibnu dar ne ko jox ma ciabi kaaba gi dama bëgg yek ci kaw koku ne ko déedéet ñun kay nekkun ci sa diine te itam nak sa ñëw fi ah katan la rek yaanu man waye bëgg nga taxaw fi waye kaaba gi duma la jox ciabi ji Seydina Ali ibnu Abi Talib ibnu Abdul Muttalib dal di ñëw ne ko indi caabi ji Ousmane bañ ñu songoo ñoom ñaar bëre Alioune daane ko wañ loxo bi nangu caabi ji ñëw tijji ko yonent bi dugg ci biir kaaba gi ba génn Ali jël caabi ji nag denc yonent bi ne ko doo ko delloo mu ne ko delloo bi noonu yàlla kay dootul jot ci ji caabi caabi kaaba kay léegi ci ñun lay nekk alquran wàcc ne ko yàlla ne nañ na ngeen matal kóolare da nga ko abboon caabi nan ko delloo buñ ko ca tooñ ñu jël caabi ji ne ko alquran moo nu wax ne ku def amaana na nga ko delloo ci seeni borom sa caabee ngi nii mu ne seen diine wax loola gannaaw bi ngeen xamee ne mën naa ci ñàkk jotit ndax yéen a ëpp doole ñu ne mu ne seen diine jub na ci bokk tanaati ay kóolare ila aliha jëm ci seen borom wa hakam xakamtum su ngeen di attee bay na naa si diggante nit ñi an tax ku moo ngeen atte bil adli maando inna laa yàlla nicma baax na li nga xam ne yaidukum dana waar leen bii ci loolu inna laa yàlla moomu kaana musul dañ sami an daaji dégg basaran daaji xam yaa ayuha alladina amano ey yéen gaañi gama alquran atiu toppaleen laa yàlla wa atiu te ngeen roy arasolo yonente bi wa ulil amri ak ñi nga xam ne ñoo yore mbiram addina ma minkum ci yéen donte dañoo dëngit na ngeen topp ñu yore àddina xam nga ñàkk topp kii yàlla teg àddina ci loxoom lu muy indi lu suñ magu daara waxoon rek da nga cay dem rek ba soo bàqate ne bàcc loolu foofu rek lay jëm ak yow ndax ki yore àddina waxtu woo ko safaanee walla nga been ko mën na la caa topp ba dootoo tala jaamu yàlla kon nag suñ la bàyyee sa jàkk bàyyee la sa julli bàyyee la sa téere bàyyee la sa alquran booye boo yewit di ci àddina nga toppalente ndax ñu bàyyi la diine moo tax alquran ne atiu llah wa atiu rasul wa ulil amri minkum waaye nag bu dara desul lu mooy attee ci mbiram sharia fa in tanazaatum bu ngeen xëccoo kii ne nangam dagan na kii ne daganut fi cheyin ci dara farudduhu na ngeen ko delloo ilallaahi jëm ci alquran war rasuli ngeen delloo ko ci sunna ñaar yooyu rek ci la attey jógee dal di wér in kuntum ndem nekk ngeen tuminuna diggam billaahi ci yàlla wal yow mi ak bés alaaxiri bu daay ji mujj zalika atte woo li yàlla wax day xayrun moo gën waa axsanu moo gën rafet itam tawilan ci mpiri ndax atte ci boppam mbir mu doy waar la ndax lépp lu ñu atte fii danañ ko attewaat su fekkee yow nag li nga atte bokk nag ni yàllay attee te mën nga atte ba bakkan des ca mën ngaa atte ba alal des ca mën nga atte ba ay jam-jam ñëw ca mën nga atte ba nit loru ca te loolu bokkut ak ni yàlla attee kon yow bu yowmal qiyaamee dañ lay laaj li nga atte woon diw bañ def ko nii ana nga ko teg ndax alquran a ko waxam déet su fekkee alquran waxu ko rek kon xam nga lay ñëw ci saare ca kanam wa man lam yaxkum bi ma anzalallah bay na ñooñu mu ngi ñëw ci naafeq yi ak seen jëf li ko tax wàcc mooy benn naafeq bu tuddoon Boucher Boucher naafeq la woon moom bokk ci yëwut yi waaye bokk ci julit ñi wa ndax julit la bu ak gëmam rafetut moom lañ tuddee bu Bushar nag xuloog benn yahud ba ñu jàppante léegi nag war nañoo dem ci ku leen àtte yahud bi ne ko yahud bi am dëgg ne nañ dem ci yonent bi mu àtte ñu ndax yoon yëpp ci yàlla la jëm naafiq bi ne ko déedéet nañ dem ci kilifa gi yawut ga Kaab ibnul Ashraf mu àtte ñu ba ñu waxee loola waa ji ne ko déedéet yonent bi gën a jege man nangu naa fun fuñ neex àtte waaye kii gën a jege ñu dem ci yonent bi yonent bi ne yahut bi moomoom moom alal ji nañ ko ko jox ne waa ji yow boo sër yaa tooñ waa ji ne bii àtte waxoon naa la du ko nangu nañu dem ca keneen ka te waa jaa nga doon tuddoo ne julit la looloy naafiq alquran ne wa kathirun mahum alam tara ndax xamoo ila ladina jëm ci ñi nga xam ne yazaamuuna danañu wax ne danañu joortu ne annahum ñoom aamanoo gëm nañ wax nañ ne gëm nañ gaa waaye nifaaq moo ne ci ñoom gëm nañu bi maa woon si la ca na ko ilayka jëm ci yow wa maa unzila la wàcceef na ko min qablika lu la jiitu muy téere yi jiitu woon ne na woon yépp la gëm léegi nag yuri doon ñu bëgg an yataxaakamoo ñuy atte wante ila taaxuut ci iblis wa qad umiroo te digaleef na leen an yakfuroo ñu weddi bii ci taaxuut wa yuri doon di tey bëgg seytaan an yadallahu mu réeral leen dalaalan réer baidan gudaa ji sëri dëgg wa ida qiila ndem waxeef na lawum ñaan leen a taalaw kaay leen ilaa ma anzala allahu jëm ci la wàccee na ko yàlla wa ila rasuli ngeen jëm ci la wax na ko yonent bi raayta nga gis almunafiqina nafiq yi yasudduuna ña ngay fekk ña ngay fekk mooy tere an ci yow suduudan ay fekk mooy di tere kayfa kawtéef ida asabathum ndem jot na leen musibatun musiba na nga xam ne bi ma qadamat ña ngi ko jotee ci la liggéey na ko ay diyam seeni loxo su ma jaawoo ko ñu dikkal la nag yaxlifoona ñu ngay géñ billaay ci yàlla naan in arad naa den ñuy bëggu الا احسانا لمي رافتال وتوفيقا اك دبلي سي نجومي اولئك نيونو الذين نيو نيغا خامني يعلم الله خامنا يالا ما في قلوبهم دا نيك سي سن قل سي فاعرض نغا ددو انم سي نيوم لين وقل وخال لهم نيلن في انفسهم سن بوب قولا وخ بليغا جي جوت مانا لوي في انفسهم قولا بليغا موي نغ لين وخني يين اي نافق قول بليغ بون لاكو وخه فك boo gëmee danga nga lool waaye soo weddee foog nga war caa mer loolooy xawlan baliixan wa ma arsalna mosuñoo yónni min rasulin benn yóninta ila li yutaa loolu lu ko tax a wàcc zubayru ibnul awaam dafa xuloo benn waay ci leen saar dañoo digaloo ay tool ci sayaan ya zubayru toolam ci la sayaan gi nekk waa ji waa lan saari bi moo digaloog moom zubayru nag dafay root ci ndox mi wala ci déq bi bu roosee toolam ba sottal léeg-léeg mu tëj ndox mi waa ji du roose ñu xuloo nag ñëw ci yenent bi zubayru xam nga ne doomu bàjjene yenent bi la alayhi salaatu wasalaam ba ñu ñëwee ci kanam yonent bi yonent bi ne Zubayru boo te ci dex gi wala ci déeg bi wala ci teen bi ba sottal na nga bàyyi ndox ma bu ko tëj mu dem ca keneen ki itam mu roose loolu ci droit de lam la bokk bu fekkee ak dex dafa jaar ci sab dëkk sañoo koo tëj